te chef d'état dafa war di rey di tëj ah oui. waraf la. dafa war di rey di tëj. ni ay buum wuta ay buum ak i ak i ceen ku dof-dof dañ lay yow ba nga ne modd sànni ci biir géej jën yi lekk la fële dara bal du takk dara du xew. allons-y nous vous battrons en 2004 et nous passerons devant vos cadavres sur vous le voulez parce que nous ne reculerons pas. Comment dama ne. कुछ किसी बड़े एलमा फैक्ट्री बदर की दगार की रंगम डालकर उसको किने कर गोरगी affaire il faut régler le xam nga man li dama ni moom laa wax dama koy affaire Ousmane Sonko il faut la régler selon la loi boo appliquer la loi ñuy rey sénégalais quatre vingt dix pour des sénégalais nan leen rey dix yi continuer dund. grave ça. man

Pam Amadou Keita Idrissa Goudiaby Alexis Diata Bakary Diomé Lansana Diarisso Ibrahima Drago Mohamed Silla Khadim Ba Bassirou Sarr Lor Ndiaye Ismaïla Traoré Mambala Sa Aouna Diène Babacar Sam Mamadou Ndoye Aliou Sen Seyni Koli Souleymane Dafa Sidia Omar Sa, Ousmane Badjo Modou Bey Serigne Fallou Mamadou des esclaves nuyu naa leen royaume d'Imrok Sow nuyu naa leen empire des Tchog nuyu république des Dunguru nuyu naa leen république des lesbiennes nuyu naa leen république des tueurs nuyu naa leen république des wàccekatu kaamil nuyu naa leen république des nitu yàlla nuyu naa leen porte aller sans retour nuyu naa leen seen dafa gudd lool acca ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen koj leen gétt gi koj leen ñëpp ñu ñëw ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen dikk leen leen ji fanjeen ji fanjeen ñëw leen ku dugg na nga partagé ku dugg rek na nga partagé ku dugg na nga partagé première video bi ma tek moy écrit domaram wa CPI gis na nak ñi ci délo avance mustapha Diakhaté gis na ko muy délo avance fii délo avance amu fi fi délo avance amu fi ba lañuy def dara xalé yi dafa am fu ñuy déparé dafa am fu ma bëgg ñu déparé tay fi la bëgg ñu déparé nañu waxtaan wi lu way nako ba ku mëna partager partager parce que sen mborum rew da ngeen ko wara xam ñu dugg ci waxtaan rubrique royukaay tey fajju fas yéene waxtaanee sunu maam Cheikh Anta Diop war cee ànd ak góor gi Babacar fay fajju ay ca ñu commencé coro ni ko waxee woon rek suñu invité euh, di disciple Cheikh Anta Diop di mhm. Babacar Faye euh, ñuy waxtaane ci Anta Diop waxtaanam du jeex comme ni ñu koy waxee rek waaye balaa ñoo yaatal waxtaan bi nañ dem ci portrait bi nga xamante ne Moussa Sène def na ko ci Cheikh Anta Diop bu dee paxe ak waa technique bi xanaa ñu déroulé ba ci kanam rek mm-hmm. donc Cheikh euh, Anta Diop di ab savant euh, euh, professeur Babacar Faye ñu dégg la ci nga ne bu fekkoon coupe du monde wala coupe d'Afrique Cheikh Anta Diop jël na ko mën nga ñu leeral wax jooju nga xam ne wax nga ko ci amin potaxara atom mm-hmm. pour ma wax ci Cheikh Anta Diop loolu il faut ma wax ko mm-hmm. xaral bu nit soxlaa loolu aussi xam ko njëriñ la ma wax la ko. gars yi may ma tuuti defe naa TikTok ci mbiru mbaam yi dégguñu te lii dafa war a fort ca kaw may leen may leen ma ñëw. nañ ko jël fii nañ ko jël fii. connected ñëpp di dégg ma yokk ko ba mu sës ñu xam mboorum réew mi histoire bi réew mi. ñu xam ko fi laa koy teg yokk paa yeeg maire yeeg ñëpp di ko dégg ñëpp ñëpp ñëpp di ko dégg parce que réew mi naxaate bi ak triandage bi ak jikko wëyu yi moo fi war a jeex même bu ngeen di def yëfu wëyu sax na ngeen xam ne gone yi léegi yi xam nañ melatuñu comme avant avant avant comme avant ma tuuti ma ñëw mais leen ma tuuti ma ñëw teg ko fii ñëpp di ko dégg fii laa koy teg fii yokk ba mu sës ñëpp di ko dégg اوكي février 1900 comme ni ñu ko waxee ñaareelu pàcc bi dañ koy jeexalee ak li nga xam ne ni moom moo di rubrique royukaay tey Fajju fas yéene waxtaanee sunu maam Cheikh Anta Diop war cee ànd ak góor gi Babacar Faye Fajju ay ca ñu commencé. Thioro ni ñu ko waxee woon rek suñu invité di disciple Cheikh Anta Diop. di Babacar Faye ñuy waxtaanee Cheikh. tey vidéo bi li tax ma andi ko. dama bëgg ngeen lire li nga xam ne moom la ñuy dund nii actuellement nii tembe tembe tembe li ñuy dund ñii ñu ne wàlla ndem nga ñu ne muut ak ñi fi nekk di ruube yépp dama bëgg ngeen xam réew mi seen réew mi ngeen yor ñi fi nekk di tiitaru naan suñu gaal gi suñu dëkk bi jàmm la dëkku jàmm dëkk nangam ma xool ndax dëkk bi yéen ko moom wala dëkk bi ñeneen a ko moom ak ñiy xeex nii ak ñiñ ci suul Binta Diop waxtaanam bu jeex comme ni ñu koy waxee rek waaye balaa ñoo yaatal waxtaan bi nañ dem ci portée bi nga xamante ne Moussa Sène def na ko ci Cheikh Anta Diop. d'accord bu dee pare ak waa technique bi xanaa ñu déroulé ba ci kanam rek waa donc Cheikh Anta Diop di ab savant professeur Babacar Faye ñu dégg la ci nga ne bu fekkoon coupe du monde wala coupe d'Afrique Cheikh Anta Diop jël na ko mën nga ñu leeral wax yooyu nga xam ne wax nga ko ci. amin potaxara atum. pour ma wax ci Cheikh ante Diop lolu il faut ma wax ko. Hmm. Hmm. bés bu nit soxla lolu aussi xam ko njëriñ la. Hmm. ma wax la ko. Cheikh Anta Diop Coupe euh, d'Afrique li tax man ni Cheikh ante Diop ba ko jëkk a jël. Coupe du monde la jël avant Coupe d'Afrique na en 1974 dafa inviter monde bi yépp képp koo xam ne kii am nga xel mu set moo xam ne mii man nga wane ne du nit ku ñuul moo jëkk nekk ci kaw suuf mu ne nañu tase keer mu def ko ñaari at yu mat mu ne Amadou def ko ñaari at yu mat ndax kenn bañu ñëw naan ma ah bu ma xamoon ne lii lañuy ñuy waxtaane kon dinaa indiwaale lii <coughs> ñu def ko ñaari at bi ñu fa tasee hmm. Cheikh Anta Diop wane Afrique wane surtout aussi Sénégal ndax image yu Sénégal ci Cheikh Anta Diop la gën a feeñ li tax ma wax loolu moo di réew yi ñu wër yëpp gis ngeen ne sëriñ yi ñu am fii amul benn réew bu ko am mm-hmm. li ko waral xel a tax xel moomu la Cheikh Anta doon firndeel ci boppam mais bëggul quand même ñu déifier ko. kooku mhm, moom mhm. mosu ko bëgg. Mhm. Euh, doguma la doguma la euh, sëñ Babacar yàlla bu la yàlla dog dañuy dem jëli portrait bu Fatou ñëwaat ci plateau bi. d' accord. Cheikh Anta Diop homme scientifique formateur historien anthropologue chimiste homme politique sénégalais mi ngi juddu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub décembre atub 1923 ca Coytu nekk ci département bu Bambey waane it ca région bu Diourbel famille nag que ab aristocratique wolof moom bu amé amee ñaar fukki fan ak ñett la daal di dem Paris daal di jàngi li nga de ni physique ak chimie waane it histoire ak science sociale n'est qu'on li ko utile moom muy euh, wéyal di amal njàngam foofu ca Gaston Bachelard ak Frédéric Joliot mu adopté sax benn gis-gis boo xamante ni typiquement africain la gis-gis boobu sax ñu bëri doon wax ni à amul passé à tout 1951 Cheikh Anta Diop nag préparé direction Marcel Griol foofu nga xamante ni fa la amee des am ci université Paris mu doon jàng rek histoire Afrique te mu daal di nemmeeku sax ci histoire boobu ni Afrique na continent bu peuple la ci langue ak culture égyptienne nag nekk na loo xamante ni mu ngi diffusé ci Afrique sowu jant mu Cheikh Anta Diop doctorat en lettres à tout 1960 amit

Anta Diop ou di engagé wu ci politique tey dox ci indépendance pays Afrique pour rawatina bu Sénégal la mu bëggoon rek mooy ab état fédéral bu Afrique ba atum 1960 moom nag muy wéy di xeex rek indépendance Afrique rawatina bu Sénégal te moom sax muy contribuer ci ay homme politique yu bëri ci atum 1950 jëm tak 1953 mu nekk secrétaire général yu étudiant yu fare ci rassemblement démocratique africain Job nak nekk koo xamante ni débat politique nag ñu daal di koy démocratiser te moom sax mu jiite woon jamono boobu li ni mel rawatina ci bu Léopold Sédar Senghor di nekk njiitum réew mu créer moom benn parti politique bu ñu tuddee RND ci atum 1976 Cheikh naka noonu nekk doomu Massamba Sassoum ak Maguette Diop génn àdduna juróom-ñaari fan ci weeru février ci atum 1986 boobaak léegi am 36 ans. macha allah mu nekk faatu nag portrait bu am importance ci dundinu ki nga xam ne ni moom moo di euh, Cheikh Anta Diop. Mhm. voilà muy portrait boo xam ne euh, retracé na li nga xamante ne mooy parcours euh, Cheikh Anta Diop xam naa ñu bàyyi la ci balaa ñoo àggale première question bi ñu tàmbale woon. Mhm. Ah. d' ailleurs sax foofu. ngeen baal ma parce que wax naa d' ailleurs tubaab rek laa bañ. Mhm. <laughs> dama ko bañ. te teyuma ko parce que ñoom ñëw ma ci dugal. ndax ni ñu ma bañé la leen mën a bañee <laughs> looloo tax euh, Cheikh Anta Diop bi mu ñëwee fii en 1960 li mu njëkk def hmm. créer parti ñu naan ko FNS FNS dañu ko créer waaw euh, bi mu ci teg mooy BMS hmm. yépp benn bi wote naak sengor mu gagné ko législative hmm. ci même jour la ko dissoudre ne benn parti waru ko mën a gagné fii. Cheikh Adams da gagné Senghor ci élection. ci élection boobu. histoire a ngi fi. mënees mhm. nañu ko questionner tout le temps. Mhm. ndax loolu lay njëriñ. ah Cheikh Anta bi muy ñëw en 1960 ak do doctoram boobu. Mhm. dañu bind ci ginnaaw diplôme bi ne. bu mu jàngale ci université de Dakar ngir ne tubaab yi ñëw moom université de Dakar te bëgguñu mu jàngale fa. Ben en 1980. Mm-hmm. la Abdou Diouf falu projet Anta Diop la mm-hmm. euh, ndax Amadou Mokhtar Mbaw moko ko formé. Mm-hmm. Amadou ah, Diouf Wa, moom Abdou Diouf. Amadou Mokhtar Mbaw mom moko formé donc lepp lo xamné li alors euh, war na ko def te Cheikh Anta Diouf du ci bokk. moo taxone ba ñoom Amadou Alé ak euh, wa opposition yu bari yoo xam ne ay communiste lañu woon mm-hmm. bi Cheikh Anta eh, Abdou Diouf wooyee Cheikh Anta ne kaay ñu gisee bi mu demee ñoom ñëpp dañu bañoon ba ñu génnee ne alors Cheikh Anta de wax naa ak Abdou Diouf ko ku ci nekk ree mm-hmm. ñu ne Cheikh Anta summi na tubayam noonu lañ ko waxee woon waaw noonu lañ ko waxee woon il s'est décolleté comme on mu ne leen déedéet Abdou Diouf moo ma woo wan ma ne ñu ni nee fi des léegi te wér war xam ne Abdou Diouf nag du suma morom mhm. ci benn fànn mhm. du ci politique mhm. du ci at du ci njàng du ci xam <clears throat> kon man mënuma xeex ak Abdou Diouf suma doom la li man ci moom moo di ma xam fi mu jëm bu fekkee mën naa ko gunge ma gunge ko bu ma ko mënul gunge ma xam ne ma xaaraat ndax bindoon naa Senghor lettre. Mhm. ne ko autorisation dong lay ñaan. lettre mhm. boobu moom won na ma mhm. may ma autorisation plage u Mbour. ma samp fa hangar di manq ci géej gi. def usine pële ci Thiès relayer ko ak pipeline nga woo les six états yi formé woon. Euh, la Sénégambie bu njëkk mhm. nga ne leen mën naa ñu fédéré ma leen di jox courant doo leen fay dara abadan kon ñu nangu Senghor tontuwul lettre boobu ba Abdou Diouf ñëwee aussi moom la doon reprendre ak moom mhm. mais Abdou Diouf aussi mu ngi nii di dund bu fekkee nit war mën a weddi loolu na ko weddi mhm. mu ne moom ñemewul loolu ndax tubaab yi kon la ñu waxoon Senghor moom la ñu koy wax ne kon day daal di jóge ci nguur ça eh, am te de toute façon loolu méttiwul man mii maa ko ne mhm. mais li mbay mu ngi fi am na alal bu baree Dieyli Mbaye bu Louga bu Louga mhm. dina mën a financer loolu mu ne déedéet du xaalis bu dee xaalis maa ko mën a ëppale ñëpp fii mhm. ndax scientifique yi nekk ci àdduna yëpp man la ñu àndal lu ma leen laaj ci xaalis dinañ ma ko indi autorisation du may tooñ moom la ñu jiital ci réew mi buy ne autoriser naa la rek ma tàmbali loolu parce que bëgguma nekk chef d' état mhm. Babacar doo mës a gis ma woote chef d' état ci Sénégal ndax amuluma benn njëriñ waaye bëgg naa nag mhm. nekk ci pencum ndaw réew ma xam ne foofu dinaa mën a wax waa réew mi di dégg mhm. ndax bëgguma dara lu dul ma nekk seen Baye Fall ci Baye Fall boobu lay proposer signature boobu may wut ne ñu signal ma ko bu fekkee ne toog na autorisé nañ ma

léegi da nga koy dagg ci digg bi mm-hmm. am na bopp yu rëy yu nekk ci université bi mm-hmm. te bëgg nañu lii nga ma may may leen ko mm-hmm. nga bàyyi quinze minutes yi ma koy jëfandikoo kon Cheikh da amuloon jot du woon ku amuloon jot communiqué ak bariwul woon quoi de mën a toog di waxtaan ak yooyu comme yaay ne trente minutes la la la mayoon waaw ça veut dafa nekkoon ci activité yu bari déedéet euh, nekk na à laboratoire am daal. laboratoire mooy li xam ni. Euh, euh, yemalewu ko woon ak lenn. ndax li mu doon wut. Mhm. moo di lii mu def en 1974. dem ba waa adduna bi yëpp d'accord ni nit ku ñuul moom fi jëkk ci adduna bi. Mhm. te nit ku ñuul lépp lu nit xam moo la ko xamal ak lu mu mënti doon. looloo ko soxaloon te wane na ko def na ko wane ko. te ba léegi kenn du ko weddi mm-hmm. waaw donc Cheikh Anta Diop bëggoon na lool senegal ndax mas na ma wax ne baabakat bu ëllëgee mm-hmm. bul bokk mukk ci ñuy wax ni Cheikh Anta Diop defalu fi xale yi dara bi ma noppee mu ne ma déedéet bul noppi mm-hmm. def naa am defuma ma ne ko def nga mu ne bu ëllëgee looy wax ma ne ko li ma gis ak li ma dégg. justement li nga gis li nga dégg lan lañ ci mën a jàpp ne lii Cheikh Anta moo ko bàyyi xale benn li xam ne war na soxal ñëpp waa Sénégal mm-hmm. en 1982 le 4 février 1982 ku ko bëgg a vérifier vérifier vendredi la mm-hmm. man mosuma tasa Cheikh Anta lu dul vendredi mm-hmm. mu ne ma Babacar est-ce que xam nga ne Ablaye Wade dina nekk président de la République man <laughs> ko góor gi mais loolu nan lay demee ndax kii. kilifa yi ci réew mi bëgguñu ko. Mm-hmm. nan lay nekk président mu ne laaj ma rek du man ma tàmbali mm-hmm. ñi koy fal. Mm-hmm. ñi xale yi juddu mille neuf cent soixante dix. de bu ñuy am dix huit ans. Ablaye Wade daal di nekk euh, président de la république. mu ne ma donc. fii ñu toll. quatre vingt deux dina ko nekk ba ñu remplacer ko ci trente yi te yow di nga ko fekkee. booba maa ngi ànd ak Xawsu Dieng mm-hmm. ak uh, Pati Sey bu dëkk Mbuur mm. ñooñu ne ko ah yow di nga ko da nga ne Babacar dina ko fekke waaye ñun nag mm. mu ne déedéet yéen ñemewu ma wax seen cas mm. ñemewu ma wax ci suma kar waaye Babacar mii gis naa ne dina ko fekk te fitam yegg na pour ne li ma ko yóbbante mu wax ko waa réew ma ma ne ko d'accord bi ñu demee ba loolu mm-hmm. mu ne ma. Mhm. kiy remplacer Ablaye Wade. Mhm. moo tax sax ma tuddal la Ablaye Wade. Mm. moom ne ko kiy remplacer Ablaye Wade mu ne koo xam ne kii la Sénégal yëpp boo leen laajoon ndax ñu ngi ko doon xaar pour fu nekk président. Mhm. kenn du la ko wax mu ne moom ci boppam. boo ko boo ko laajoon du la ko wax. waaye nag yàlla daf koy indi pour mu teg Sénégal ci yoon. mais loolu Babacar. bu mm-hmm. ko deful. Mm-hmm. musiba bu rëy la ci moom. ma ne ko ndax lan mu ne ma ma ne ko mais man li ma jaaxal lan lay tege Sénégal ci yoon. Mm-hmm. mu ne teg Sénégal ci yoon lu tuuti la na def ay institution yoo xam ne yi gannaaw. kenn dootul jalgati constitution Sénégal loolu laa bëgg te moom moo ko war a def. te pourtant Macky Sall bi muy départ exactement loolu la lay def. léegi nag nee na ma bu ko deful. ñetti dee ñu ngi koy xaar.

mu ne dina dem ba xam ni mhm. lépp lu mu xale yu tuuti ñooy wax ne day fen de bu ko kenn mhm. déglu day fen mhm. ma ne ko benn dee la mu ne deuxième dee bi moo di ne day dee politiquement ma ne ko nan lay dee politiquement mu ne du dinga nga yow su yaay suma seede sawar naa pour di la wax bu boobaa deew politique day nekk ne day dem ba xam ne ñi mu àndaloon créer parti mhm. ñoom lay dàq ci biti jël ñi xam ne ñoo ko gënoon bañ mu tax ci boppam ah. mu ne loolu des politique la mais moom nit la wala lan la ah. mu ne ma ah. mu ne ma léegi nag ñetteeli dee bi mhm. gëm ko te ñaanal audience nga waxal ma ko lii ne mhm. Cheikh Anta moo ma ko waxoon en quatre-vingt-deux mais yàlla dina la indi nga teg la ci boppu Sénégal waaye li mu la indee loolu dong nga mën a def pour mucc boo ko deful doo mucc moo di lan moo dina nga def ay institution yoo xam ni ça sera yi kenn dootul mën a jalgati constitution Sénégal boo ko deful doo wàcc ak bakkan ci nguur maanaam ko wàcc ak mu ne day dee physiquement ñetti dee yi booboo koy ñetteel boo demee nag ne ko mhm. te ñaan naa ci audience ñaari yoon. o mhm. pale mhm. dañ may accordeel bu ma demee ba buntu pale ñu ne audience yi euh, annulé nañu ko ndax Ablaye Wade mu ngay def. Euh, manifestation place de l'obélisque ñu annulé audience yi. Mhm. ma ne ah kon nag amul chance. mais mais Cheikh Anta euh, sëñ Faye Cheikh Anta bi wax loolu. waaw boobu. Abdoulaye Wade nekkul président c'est très très loin de ça waaw donc donc boobu xam Sénégal am na ko tudd Macky Sall mais mais li li doyaat mooy Cheikh Anta muy wax loolu daf koo teg ci ci baatin wala dafa jàngat société Sénégal bi xam ni muy doxee wala euh, qu'est-ce que fan la ko teg jàngoon mm-hmm. du mën a xam ne xale mooy remplacer Abdoulaye Wade mm. du mën a xam ne Abdoulaye Wade dina mm-hmm. nekk président wax ñan ñoo koy fal te exactement ndaw yooyu ñoo ko fal ñu ko ñu ko doon topp ñu ko doon topp di daw bi ñu màggee la la falu. waaw moo taxoon en mille neuf cent kii deux mille douze. Mhm. waa RND bëggoon ànd ak euh, kii Fall. Ibrahima Fall waaw. man na leen kii Sénégal ñu ngi koy xa du ki Cheikh Anta waxoon. ñu ànd ak ak euh, <coughs> dof boobu xam ne ngeen baal ma journée. damaa yéex a nit damaa yéex a nit xëcc lupp bi mu ñëw dama gis fii ñu ngay wax mbirum ndoxaan maa ngi leen di indil yeen seen seen mboorum réew li tax gone yi dee ñi ma fi njëkk a dugal xale yi ñu lim yëpp ñu dee maa ngi gis ñu ngi toppante fii rek dàkkante rek xaw ma ku ñuy wax ne boo nobee nit da koy wax ci kaw boo bëggee dara xaw ma ku ngeen di waxal nag nobante indiwuñu fii doomeraam yi nee naa leen réew mii gone yi réew maa ngi ci pooju jeeg ji réew mi ci ay becco lañ ko ëw réew mi fii lu fi rëy rëy rëy nit lu fi nit rëy rëy rëy garaam mbubu garaam mbubu ak tanqam lu gu mu mën a tànqam ne ak muut gu mu mën a def ci ab becco la jël xam-xamam ak baatinam ak zaayiram ak lépp lëmas ko ci becco ab jeeg takk ci becco takk ci ginnaaw gi ëmb li mu yor yépp ba pare jël ay perteg ca kaw toog nag aj tànk lolay lay wax ak yeen nono loolu mom ngeen yor ma ngi ñew di leen wor seen booru rew ngeen tok fi di por problème nob ak ñak nob yey ñambek dina ruux ak du ruux xam nga yeen li moy jotal li moy tax may dag fu bon parce que ay ram ngeen deglu leen li ñuy wax jël seen bajo yu tëj ñu yor koy lem ba mu ron tok ci ñu waxtaane rew parce que dee la wax ñu waroon ruux la ray ay xalé yu yu amagul doom ñuy wax loolu ñu am lu ñu war a lay ëllëg di ko lijjanti li ëpp solo ne fi ngeen nekk di lijjanti kenn ku nekk di wut ku la coxataanal sa sa awra du ni ngeen di defa ma mer ok dootuma ci waxaat yow doo ma sori fii nga may jege dootuma ci waxaat nag ñu ànd ak euh, dof boobu xam ne ngeen baal ma journaliste la woon mu ngi ci Macky Sall léegi. Abdou eh, man baar kon dof la moo jàng. ñu ñu ànd déedéet li dofe moo di ne fi mu jaar moo ko dofloo fi mu jaar ko dofloo mm-hmm. ñu dem ànd moom ma ne ko du kii de. Eh, Diallo Diop ne ma ah kay kii nañu ànd ak moom ma ne ko kii dina daw. dafa mujjee daw. dafa bokkatul absolument waaw dem ko kon kii yëg na ne du moom. Mm-hmm. ab kii Macky sàll mii moo dem ba sunu siège. Mhm. Euh, Grand Dakar. ne Diallo dama lay def directeur de cabinet. Mhm. et kii de campagne. Mhm. Diallo ne ko noonu <laughs> du ko def bi mu defee ma ne Diallo mais yow moomoo parti bi parti bi Cheikh ant moo ko moom li ma dénk loolu la gën a gëm. candidat yi ma gis yëpp kii laa ci xamul. te kii moo ci gën a tuuti. walu tax nga dum moy ko man de lay laay hmm ku mu neex nak watel kenen Cheikh Anta lu mu wax téré la ci man te gëm na ne du mësa tanku day nekk mm-hmm. bi ñu démé premier tour mm-hmm. mu génn man ko lu mu la wax mom la ki le Cheikh Anta do la parce que néwon 30 ans duñu ko génn mm-hmm. koku ñew mais on est oui deux mille la ñu. deux mille la muy trente ans net. quatre vingt deux ba deux mille douze. trente mhm. man na ko yàlla xam na ni kii mooy falu. mu falu. man li ma gën a jaaxal ci wax ji mooy di euh, euh, Cheikh Anta wax euh, ne. président bi remplacé Macky Sall bi remplacé Ablaye Wade. fii ak xale lay mais man li ma gën a a Sénégal. waaw te dama gis Macky Sall en 2012 toute sa campagne. ci loolu. voilà dañuy daal taxaw fii parce que yi ma ci bëggoon jukki jukki naa ko ci bëggoon wax moom laa di ngeen dégg xale yi xam ngeen ne Cheikh Anta xam nga ci biir wax ji nee li ma def li la mais autorisation pour que ñu am courant gratuit ta buñu togué fi lek 7 ans xawma ndax sénégal bu rawul france lu mu jàngoon ak lu mu bindoon yépp mu jël xoti xamné da doon gënt do loolu la wax limu bëgg yépp liko ñor moy doon bàyyi faalu sénégal est ce que xam ngeen né cheikh anta pour ñi tok naan cheikh ibrahim fall ñi ñu naxé cheikh ibrahim fall mo nekkoon dof dafa dafa fannaaw woon ba ñu tere ko julleeg mbatati mbatata mbatata est-ce que xam ngeen ne Cheikh Ibra Fall mo dugal Cheikh Anta école xam ngeen lool Cheikh Ibra Fall mo doon denc way juru Cheikh Anta doomu jitem doomu jitlem lool Cheikh Anta deg jamon ko ci tank tank bi demone bay sol nox Cheikh Anta ñew pour faju ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra dugal ko école ne ko delu wat ni ngeen mëne wax ne cheikh ibrahima nekkoon bay fallu serigne touba cheikh anta ñëw nekkat bay fallu sénégal jàng pour liggéey sénégal fekk fi senghor senghor ne ko xam-xam gi nga am waa france senghor laa wax de ne ko kii du jàngal sénégal yi parce que bu leen jàngalee day bari ñu muus ak a yeewu sénégal day dem te warta dem te war am ñu mel ni moom wa Senghor mom, Cheikh Anta mi juddo ci ay serigne mag ci ay serigne Senghor mom da am ñuko ngembon ne ko Senghor seng ca kaw kon ñooñu ñi ngi won ci rew mi mais ñun son sen intérêt personnel intérêt personnel gi tax mu gumu garal gi am en 21e siècle intérêt googu mo fi bàyyi won Senghor ak ñi mu andal xawma ndax dégg ngeen ma wala deggulen ma tuduma tur nak tuduma tur de dama ne rek Senghor dafa àndoon nag ñoo xam ne ñoom la ñu wax ne àllaaxira ca yàlla ñoom ñoo ñuy ñaanal ñu dugg àjjana man xalaat naa ne duñ dem duñ dugg àjjana nag ndax segam àdduna bii dañ bëggoon a dund àjjana comme ñoom ki ko mën a def ay sëriñ na fi ànd ak sengor pour set intérêt personnel kenn ki ne ko Senghor seng ca kaw ka ca fële ne nanga tudd ma tur de bu ma kenn duulal nag tudd ma tur pataaral gi daal laay décortiquer ma turu ken sengor seng ca kaw ñi nga xamne ku len tuddu sama samaam ñew ku len tuddu ñu ne da nga torox ta ñoo ñoo len toroxal ñoo ñoo len toroxal ba ngeen tok ci torox ku juddu sante dem ma nga doon dawalal rek rek ma nga rank ci frontière ma nga wër sa fo fo samp say ren man mi dama samp ci samay ren fi ci prix de revient france di jël sama prix de revient na leer Dengen, la Cheikh Anta waxoon serigne ci na ci réew mi lankal ko ko ñu wëlbataku ne serigne ci dañ leen nax après Mamadou Dia serigne ci dañ leen nax ci Mamadou Dia japp ko tëj kasso nax nañ leen ci Cheikh Anta nax leen ci Mamadou Dia nax leen ci Omar borondé Diop waaw nax bi nax maa ngi bëgg day war am bu dé ay ñoo ñi leen yàlla booleel ngeen nekk ay nit ñu nekk ay nit ngeen di suurantee ka ngéntante ngeen naxante problème dinañ am problème nag ak malaaka yi dinañ am problème bu rëy ak malaaka yi loolu nag li ñi naan ay sëriñ si dañ leen jox ku la jox doo nangam doo nangam déedéet fa ñuy ruube de problème bi yépp ay mayon wu France ñoo fi lu président de la république di def da koy déggoog sëriñ si Senghor ba muy jóg di dem ci ay sëriñ la dem ne leen am na nañu pétrole am na nañu lii réew mi am na teraanga boo xam ne amul si benn dëkk comme ak yi doy nañu doy na ma doy na askan wi dama leen koy dénk ñi la ko waxe sëriñ si la ko jox kon su kon Macky Sall li mu toog di def ci réew mi li mu toog di def ci réew bu leen kenn nax bu leen nangu kenn ku leen nax ñoo sëriñ si ñoo ko ànd armée française bu joggé kañu yaakaar né mom ak tudduma turu kenn nag kañu yaakaar né mo gëna reuy tari xati réew mi ñu gëna a fofu lay dem marine française bu joggé fa lañuy dem ambassade france ambassadeur ba bu joggé fa lay dem tudduma turu kenn da ngeen di mëna a rek dag leen fexe leen nak ba jël sama gémmiñ gi ñuux ko lu mu waxut dul rek ngeen di def turu kenn dégg ngeen li fi xew mi ngi nii léegi nag damay jóge foofu yëpp wiiri damay wiiri ñëw indi leen fii parce que yéen yéen du ngeen ay nit ñàkk ngeen jom mën ngeen wor te ay jaam ngeen ay jaam ngeen ku leen jàpp-jàpp jaam ku leen bàyyi bàyyi jaam wor rek ngeen mën wor rek gor su ñëw ngeen wor ko seetaan rek seetaan rek ku ne dëxañu fi mu toll nii yéen a ngi xaar tabaski ñëw ngeen mëq seen yàpp andando yeen ñep dem kap kep kap kep kap kep degeural seen sidit mi di jot ngeen ray xari dank seen yap toyal seen ciep ninal seen diwlin mar seen loxo guddi jot ngeen nappaaje seen jek xey suba ñi ne ci bamba ji la ñi ne ci mali ji la ñi ne ci ñas ga la ñi ne ci nangam ni rek na balé nak ki man bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa senegal ñoo ngi leen di nuyooti di leen ziarawaat di leen ñaanal jamm ci diko sakku ci yeen ngeen ñaan ko yalla mi ko am te du ko jeexal yàlla buur yàlla boole ñu defal jamm te saxalal ñu dimbalam ñu ngi ñëwaat rek ci njàngat bu bees ci li xew senegal ak li fi xewoon ak li nga xam ne sunu yaakaar yi bopp la te teguñu ko fenn ci li bu masaan mel ni nii lay mujjee ku yàgg fekkee nawet mos bu xiinee taw xiinati taw bu xiinaatee sañ nga ne day taw wala nga yaakaar ko boog bu sottee nga xam ne loolu la yàlla dogal Sénégal amu leen ndey amu leen baay ñi waroon a doon seen baay mooy gouvernement bi ñi waroon a doon seen ndey mooy kilifay diine yi te loolu moo fi nekkoon waaye gouvernement africain yi France ilif ah yal nañu yàlla musal ci France ak mbooleem li français yi def ci jëf ji bon ci kaw nit ku ñuul dañoo guddee dañoo gudd ba léegi. Macky Sall di mu taxaw na ci France France làq ko ne ko waxal nag li nga ragaloon a wax mooy duma ma ne waaw duma ma ne léegi ci biir Sénégal waaye tey yaa ngi biir France nee nañ préparé pour am victoire deux mille vingt quatre kon la muy tekki mooy pexe woon na boobu ba léegi ca loolu la nekkoon doon defaru defaru ba defar conseil constitutionnel ba nga xam ne ñu ngi koy xaar ak benn tànk yàkkamti nañ moo di kayitam bu ñëwee ñu ne ko voilà mën ngaa doonaat président ñun ci ban réew la ñu nekk ku doon buur daal réew yëpp lay téyeeg loxoom. charte yooyu la fi français yi teg moom it bu doonee buur France téye ko loxoom ba lu ko def loo mu def ko lum ko tere mu bàyyi ay misaal yu bëri ci mooy réew Afrique yi nga xam ne moom la France yi lifoon yëpp mépp réew moo xam ne France bëggoon na ko toroxal toroxal na ko bu mu ci bëgg a teral teral na ko ku fa bëgg a teg teg na la fa ku mu fa bëgg a teggi teggi na la fa ñett réew ngi ni yoo xam ne ci at yii Sénégal a ci des muy Côte d'Ivoire ak Guinée bu Bush ne fexe na ba président ba mu bëgg mu toog fa mu toog fa loolu la toogaat Sénégal kon France moo préparé Macky sàll pour continuer bàyyi ko mu continuer ci bopp réewum Sénégal ci lu dul volonté sénégalais yi nag ndax wax dëgg yàlla ku gis liy xew di nga xam ne sénégalais yi ñoom xeeb nañ Macky sàll wàccu nañ ko xam nañ ma ne nam li muy def doyu leen dañoo bëgg mu dem mu di ko fexe nag fexe mu wér waaye boole teg nag ay politiciens yoo xam ne li tax ma ne politiciens yooyu seen bàyyi amu leen bàyyi mooy politiciens yii fi nekkoon ñi nga xam ne dañ leen a dàqoon ci nguur gi sonal leen xeet wi jooyal leen ñoo jël si waat tey di ànd ak ki leen dàqoon lu tax mooy ay ay gàtto rek lañ leen dikk ñoom ñëpp d'accord nañ ci Macky Sall toogaat ndax Macky daf ne leen pour ngeen toog yéen bokk ci candidat yi da ngeen di nangu ne damay toog man toog naa ba jeexal loolu ñëpp xam nañ ko ay fen lii may wax pour mu dëggu su ngeen bëggee bokk yéen pour ma baal leen def ay pexeem ba léegi ñoom ñoo ko yoral bàkkaar pour mu baal leen da ngeen di nangu li may fen mooy dama naan damay toog ngeen ne d'accord ngeen yéen ngeen toogaale donte la xam ne ne ñoom du ñu am dara nañ bokk ci candidature bi beneen bi ci def mooy nañ feral Ousmane Sonko fasal ko fexe ba yeew ko benn place ci loolu lañ ne Ousmane defuñu ko dara lu dul dañ ko complot gouvernement Sénégal moo ko complot sëriñ si complot ko politiciens yi complot ko ñoom ñëpp ñu complot ko teg ko ne le te loolu histoire du Sénégal a may moos képp ku fi am kàddu di seetaan gannaaw lu rëy lu bon li fi xewoon ngeen di seetaan ñuy def noonu wante benn affaire rek moo am wolof day wax day jugub jugub bu juuta bu demee àll ci kawam lay dil si yéen peuple Sénégal yéen politiciens yi yéen gouvernement bi yéen ñëpp bàyyiwuma kenn lii ngeen def seen kaw la jëm si waat gis nga Ousmane Sonko su ngeen fexee ba nekkul président ngeen fexe ba Macky Sall nekkaat président fàttiwu leen moos ni leen Macky Sall kenn ku ne si yéen jot na wàllam ci nar wi ci jëf ju ñaaw jëfin wu ñaaw alal réew mu ñu yàq barki démb seen doom lañ rey te dara waralu ko lu mooy bëgg fee toogaat ki leen di reyal seenu njaboot nag képp ko xam ne yaakaar nga ne kooka dina toog dundal la nax nga sa bopp ndax rey moom ku ko xas def rek def nga loo xam ne wuute nag la taxoon ñu fal la ndax bëggoon nit ñu dund moo taxoon ñu dundal ko ba bàyyi ko mu jiite réew su ko defee nag li nga xam ne moo am ba des mooy Macky Sall am na lum nar lim nar naa ci joxe exemple si ña ko naroon nan lañ ko defee woon mooy rey nay sénégalais indi ay nervi génne ay fetal jox ko sénégalais ñu fetal sénégalais muy xaar pour toogaat bu toogee France dina ko faxas ba set ba ak fu ñu ko mën a condamné France mi ko ne defal nangam moo koy jàppale ci loolu loolu tiitalu ko li bi mu bëgg mooy jiitewaat Sénégal ci falsifié lu mu mën a falsifié lu mu mën a def falsifié woon ay ne forcément am na deuxième. mandat léegi mu ngi bëgg a falsifier ay politiciens ñii forcé na leen bañ transhumé ñii li muy def du dëgg waaye foog ñu nangu ko ndax ñu mën a am seen wàll ci nag bi comme ñoom nañu am rek lañ bëgg bëggaluñ Sénégal dara ku ca mel ni Barthélemy Dias ku ca mel ni Khalifa Sall ak ku ca mel ni ku ca mel ni képp ku nangu ne Macky Sall am nga droit am na droit poser troisième candidature te looloo nangu gi yaa ko teg rek ci sa intérêt personnel nag lañ mën a wax parce que ku koy nangu ku ko. waaye gannaaw bu mu leen wooyee dig leen France naan ko waxal diw lii defal diw lii jàppal kee tëjal kee ci loola la taxaw ba tey Macky Sall dafa pare pour bisu tabaski gi nañ defoon Saddam Hussein mais dugal corde ci baatam bisu tabaski loolu la nar a def Ousmane Sonko yóbbu ko ci kaso bisu tabaski lan moo tax ma wax loolu. ay semaine ngi nii bëggul kenn ku jógee Casamance ñëw ndax bu nit ñi ñëwee mën naa am ñu manifester léegi li muy xaar mooy nit ñi génn Dakar ci seen dëkk yi tabaski yi balaa ñoo ñëw denc Ousmane Sonko boucler dëkk bi. daal di taxaw nag lépp ci ay fen tëj ko ci ay fen daal di jël nag seen candidature ñoom déposé ñoomu neen dem buñ demee mu sàccaat leen bu demee ba toogaat si nguur gi waraat leen ndax ñoom loolu lañ mérito ay warkat lañ dañuy war xeet bi buñ leen watalee ñu war xeet bi buñ luñ mën a am war xeet bi Macky Sall bu ko neexee mu war leen bu paree woowaat leen loolu la fi nee ak ñoom loolu la fi nee ak ñoom te kenn du mën a manipuler loolu wala planifier loolu loolu France def na ko ci réew yu bëri Burkina Faso bu Guinée Conakry moo ci mujj bërki démb Alpha Condé dafa forcé brider une troisième manda Alassane Ouattara noonu la def tey jii fan la nekk ma nga càddo di manipuler seen waaje ba mu génnee dafa dafa jox ndigal gouvernement bi wala mu digal ko ne nañu rey maanaam tubaab yi dañoo jàpp ne africain yi rey leen ak reyug naata yem amul benn gravité pour rey nitu africain ci monde bi amul benn gravité waaye bu doon benn gouvernement moo rey benn tubaab ci Europe bi tubaab yëpp ñooy jóg gouvernement yëpp ñooy jóg yóbbu ko ci yoon dàq ko fa génnee ko ne ko mënoo toroxal ko mais France day jox ndigal benn gouvernement rek ne ko rayal sa population su ko fa bëggee jële su rayee kenn mu ne voilà daal di koy jébaane diw ma ngay rey ay bokkam Moussa Traoré noonu lañ ko defoon bërki démb kii toog càdd def rey na nopp la Moussa Traoré rayoon te ba léegi ma nga fa toog ma ngi mel ni dara xewut da ciy muur am mbalaanam dégg nga di di maslaa naxante ñàkkal fayda mbir ma du ci wax du sa joxoñ du sa xool loolu la France tàmm ak africain yi ci loolu la lekk ba léegi kon daal ci gàttal li ma bëgg a wax mooy Sénégal toroxati ngeen gàcce dikkati na ci yéen kilifa diine yi ngeen di xaar du ñëpp waaye képp ku ci war a wax waxu ci parce que kilifa yi wax nañ nag ñi nga xam ne yoruñ carte APR di ko nëbb xam nga carte APR du carte marron bi rek 4 4 carte APR la passeport diplomate carte APR la nga woote ndaje ñoon di lay milliard ne la ko jox carte APR la ñoom ñëpp Macky joxoon na leen carte APR ñu accepté ko jënd ko moo tax tey li muy def dara lañ ci mënta wax ndax ñoom ay apériste lañu ñoom ñoo la gën a xam ne liy xew ci réew mi du dëgg du yoon waaye dañoo jaaroon ak Macky Sall ci loo xam ne du dëgg du yoon mu jël alal réew mi jox leen ko ñu jël ko fajee ko seeni soxla wax seeni njaboot moo tax ñoom kenn ci ñoom mënta wax ndax kii di wolof mooy wax ne ku la ëmbal sànqal ëmbal la kersa koo jox sànqal mu lekk ba suur dana am lu mu la <laughs> gouvernement Sénégal niñ ko organiser jël xaalis bi ñuy wax caisse noire ay milliards par wer di jox ab président de la république mu diko ko corrompé ñi nga xamné ñoo né ci réew mi doon ay kilifa li leen ci jox ay carte partem bu gën sétlo mbolem parti bu fi tok rek and na kilifa yi lutax moy kilifa yi nangu ñoo liggéey te dañuy lek comme nit ñi ay nit lañ la lañ leen di jox moy seen soxla yi lañ leen di fajal ci ñakku askan wi gouvernement bi li askan wi dajalé won mu jëm ci miskin yi ak fakir yi ak yi jëm ci liggéeykat yi ak ñi feebar ak ñi war a jàng ak sécurité bi yëpp dañ cay teq alal ju bëree bëri jox ko ki nekk ci palais bi ne ko yaa ko moom mën nga koo defee nu neex tuddee calling calling calling calling calling calling calling. salaamaaleykum. jërëjëf maa ngi lay siyaar. da ngaa dégg ñu ubbi ligne bi. waaw ah ligne bi ubbeekuwul ku tuddin woo xam ne xaraam baaxut barkirut ñi ñu andil mbirum gouvernement ñoom loola amul ci seen réew ya ñu absel ko accepté ko Sénégal day toog tibb ci xaalis bi jënd wit wit yu bari seet sëriñ si bëgg wit wit mu ne leen am leen lii maa leen ko jox réew mi joxuñu leen ko man nii maa leen ko jox olof ne ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa mu seet ñooñu ne leen seen doom yi bëgg nañoo génn. calling calling calling calling calling calling. te duñ fi dara waaye kaay ma jox leen këyit woo xam ne dañuy doon koo xam ne fuñ mën a dem daañ dugg nu mu leen neexee yeneen senegal yi ñoom toog sëriñ si nangu lool ak seenu njaboot. calling calling Gigi. xam nga da ngeen di sabote xam nga da ngeen di sabote da ngeen di tiit ci nelaw rek ku nekk dugg sa téléphone coxotaan alo alo xaar leen ñu ubbi liñ bu ñu ubbee dugal ñëpp audio mën ta daw ay appel di daw ñoom ñëpp ñu jox leen ay passeport diplomate muy carte APR bu loola passé ku ci xewle feeñ na wir ba ne fang si bu ñu toogee lan la ñuy def mooy gërëm gouvernement bi ak di ko sant ngërmaa ne loo xam ne calling calling Gigi moom mii gërëmaate ñemewu ko wax ki ñuy gërëm ñemewu ko wax sant naa ko gërëm naa ko rek gannaaw ba nit ñuy defaree ba sonn gouvernement bi la ñuy gërëm kon am na jëf ju nekk ci suuf joo xam ne jëf jooja moom la ñuy wax ci kaw bu mbooloo mi teewee li nga xam ne moo am Sénégal nag mooy nii la nar a continuer ba ba saa di taxaw président Ousmane Sonko yal na la yàlla fay wax nga lépp def nga lépp sacrifié nga sa bopp bul bul sonn bàyyil xeet bi te dem ñii nii la yàlla bindee ay workat lañ. ay naxaatekat lañ aw xeet lañ woo xam ne seen bopp gënal moo leen gënal xeet wi yëpp amul benn sénégalais bu mën a wax ne man bu sama njariñ teewee njariñu xeet bi teew bu ma naree ñàkk xeet way ñàkk loolu dafa bëri ci ñoom loolu nag moo indi tubaab yi not ñu moo indi tubaab yi not africain yi ak ñàkk fayda goo xam ne daanaka ci dar bi la nekk Pito Bota waxoon na ne dañoo benn suñ xel yi waaye wallahi loolu la xaw a niroog nit ku ñuul sàggan na amul benn valeur ci kaw suuf boo duggee ci avion bi waaye sax dee nekk ab tubaab bu avion bi daanoo ngeen bokk dee tubaab bi la ñuy gën a fay loolu ñëpp xam nañ ko te kenn kaasu ko nit ku ñuul li mu inventé ci kaw suuf lu mu mës def ñu ne ko defoo ko adressé ko ku weex waaye ñàkk fayda gi ci africain fokk sama xeet bi di Sénégal mu ngi gën a feeñ ci yéen yéen Sénégal yenn a seetaan Macky Sall muy wax. di jëf ba jëf lu leen naqari ngeen mandragal ko bam ne sang ci fukki weer ak ñaar mu taxaw bëgg a wëlbati seen xel yi lo mo leen ko waroon wax lu ko neexut di wax lo ño xamne ay tocc rek lañuy wax na leen woor ne bu jëlé réew mi bala ma 6 mois mu delluwaat buum gi ci boy boy bi té daru ko jël ci dëgg ndax bi mu ñëwee moom moo rëddul won loolu ne troisième candidature mandat dootu andi ciow ci réew mi la fa déwon ñaaram ñettam dé nañ te buum ci loolu té fi la taxawon né duma né ne waaw du ma ne ndeka boobu mu ngi préparé moo ko France li muy def yëpp France moo ko ko sant moo ko ko planifié moo ko ko defloo teel Ousmane Sonko kar ko ci yoon bi dama jëli ko Ziguinchor wàcceel général bi nominé Moussa Fall yëkkatil kële wàcceel ma bee dindil juge bi déplacé kële jëlal ministre bi doxal yëpp sensibiliser mooy doxal Sénégal ku ko gëm. noonu la demee ku ko gëmut tam noonu la demee ndax nii rek la ko doon def ci waa Tchad def ko ci waa Burkina Faso def ko ci Guinée def ko ci Mali def ko ci Niger def ko ci mboolem pays yi nga xam ne Comore France moo leen coloniser di leen manipuler jàpp leen comme goom aadama bu yor ay ganaaram jàpp leen ne yéen yéen ay ganaar yi France seen symbole France boobu ñu def ay ganaar du ñoom ñoom ay nit lañ symbole bi mooy ganaar yi nga xam ne ñoom lañ yilif kon nag Afrique yéen a ngoog yéen ganaar France. kum ci neex nga jël jabar ko ko neexut mu rey la ganaar gu ko neex mooy neen gu ko ci neexut doo buuse noonu ngeen di continuer moom ba saa di taxaw du ngeen ko mën a bañ ndax ku ngeen di andi war ko faa teg pour mu bañ ko France mooy fexe ba kooka du fi ñëw jàmm ma du fi newoon coon coono bi jeexoon na Senghor la fi teg pass fi Abdou Diouf Ablaye Wade ba mu commencé ñàkk a déggoog France ba bëgg leen fee jëlee keroog la taxaw jabolise ko ci kanam Sénégalais yi fexe ba amatuñ pétrole amatuñ gaz amatuñ courant publicité ko. ñu joxe xaalis ñu jël Macky Sall mii xam ne gànna nooye la moom jikoy nawe la yor cin gumbax jël cafka cin nga amul cafka andi ko fi manipuler ko dugal ko ci luq njuur defal defal ko ay tooxi doona forcé ko ci ay njuuj njaaj ba mu fees del del del ba tiit tey ñu ne ko nag da ngay continuer toog fi di ko forcé di ko manipuler di ko defloo naan ko ñëwal fii ñëwal faa defal nii xaaji guddi bu ko tëddoon di nelaw France woo ko balaa fajar mu wuy ji ndax xam ne la ko cay xaar dugal nañ ko ciy fiir lonk ko ay fiir ba mu fees del del del del del ba tey jii moom xam na ne jàmmam rek mooy tafu ci France donte la Sénégal yëpp dañ ciy de te Macky Sall lépp lu mu bëgg wax ñi mu àndal ñoo koy wax nit ànd nag moom taxaw ne bu quatre-vingt-dix pour cent yi Sénégal yi doon dee ngir ñu jëf li France wax li dafa wax ne ngir ñu jàpp Sonko waxul loolu la ngir ñu jëf li France wax pour Macky Sall compte jar na ko kon ñii dee amuñu valeur ñii dund amuñu valeur waxi France moo am valeur fii Ahmed Khalifa Niass taxaw na ne bu quatre vingt laa wax quatre-vingt-dix-neuf personnes sénégalais wateloon kenn mu des benn place muy bu France bi bu France watelul doo jël réew mi loolu yëfi gor gor gu ko waroon a bañ te loolu rek mooy dox mboolem li France di wax Macky Sall boo ko dégloo ci gaayam yi dañ ko dégg benn par benn ñoom ñëpp dañ ne woon duñ transmettre bi Abdoulaye Wade demee ñoom ñëpp a transmettre ku ci France nee ko defal nii kii fii nga koy jàppee di ko waxal nan lay def Sénégal a ngi fees dell ak ay fetal yoo xam ne population bi xamuñu ko mu i nervi fees bëgg lijjanti la ñuy lijjanti bu ñu defee bandi ba réew mi jaxasoo tiisal ñii rey ñii neexal ñii xoqatal ñii déplacé ñii dugal ci kaso bi ñii bañ pare li ñuy def ñu bàyyiwaat ñëpp daal na jéggale nañ ku ne na dem yoonam dara jeex na acca nañ leen continuer defar réew mi yal na yàlla musal ñu ci système bii yal na yàlla musal ñu ci nii Ousmane ko bàyyi leen ko mu doon candidat bu ngeen ko jàppee jàpp leen ko ci dëgg te dëgg googu Macky Sall yow yaa ko woote woon bañ joxoon la yaa ngi wor Sénégal ñi ànd ak yow fexe nga bañ di la woor la Sénégal saggan nga ba France an jël la woorloo la Sénégal dimbali leen xeet wi ngir yàlla sonn nañu la Sénégal moom boppam def nga ay at demal sonn nga li nga def ci bàkkaar bëri na li nga fi yàq bëri na nit ñi bëggatuñ la loolu rek doy na na la jaral nga am ful la ju toll ni nga dem sa yoon ak loo fi mën a wax rek waxit la li am solo mooy nga dem bàyyi réew mi ñi ko moom nee nañ waratoo ko yor France mi la fi teg bu ngeen déggootoon suba suba mu jëlee la ak nu mu la fi mën a jëlee doyoo ko sax ñett fan ndax lim xam ci yow moo gën a bëri fuuf li nga xam ci sa bopp yow lim la dugal moo ëpp fuuf li nga dugal sa bopp jaay da lay avion jaay lay bateau jël suñ or bi foqati ko foqati suñ pétrole def suñ gaz bi mbooleem lu France lu luñ yoroon Macky Sall France foqati la ko sa loxo te mënoo ci dara di la neexalee ay foyekaay ay almeteki lañ set muy ay avion ak ay bateau ay privilège ak ay bàyyi la ngay def lu la neex te lu leen neex da ko def far force boo yaakaar ne libre nga libératoo mais comme xas nañ la yeew ba pare te ngaa bàyyi réew mi dem ndax Sénégal keneen ñëw fi yow dong amuloo xam-xam yow dong moto mënoo fee doon buur ñi ko mën a doon bëri nañu manipulation bi bëri na nit ñu bëree bëri wanaasuloo nga leen ay fen ñu bëree bëri def ngay fen ne ay wax leen dëgg la ñu wax ko am na ci yoo xam ne sax da leen di yónni ci télé yi ne fen yii ma wax nag ba ngeen ne dëgg la dem leen ngeen ne xeet bi ngeen gëmloo leen ne dëgg la bat bu set sa ndaw génn fi wax loo xam ne bu pare ñëpp dañuy tudd seen gémmiñ te ci forcément la ñuy génne di ko wax yaa ngi ko commencé woon ci Demba Kandji ak léegi ku fi génn rek boo ko yónnee toj toj lay wax nit ñi dañuy seen gémmiñ ñoo ngi leen di siyaare di leen baloq yal na wax am njariñ yal na ci ji bokk waaye li ñuy jàpp suñu xel daal mooy Macky Sall pare na lam doon waaj yëpp mën na tudd na démb na day def quatrième troisième mandat fexe na ba politiciens yi ñim tere wan a bokk ci ay caaxaan nee na leen léegi da ngeen bokk ci condition wu da di bàyyi ma leen ma bokk bu ma bokkee sàccaat carte gi loolu conseil constitutionnel koy xaar nañ xaaree woon Ablaye Wade euh, constitution africain yi dafa doxut ndax Afrique boo fi xasee toog boo doonee président alal yëpp sa loxo lay nekk mbooleem fa attukaay yi ne amul kenn kuréel supérieur amul dara lu la mën a barrer la route lu tax mooy français yi dañoo bëgg bu ñu la jàppee manipuler la képp la ba bu ñu la fu la jaaraloo nga jaar fa boo ñëwee réew mi lu ne da ko mën a layal kenn mësta gis ku siise nit xaar fukki fan ak juróom mënoo joxal ordre bi li nga siise xaar semaine di joxe résultat wu lan ngay décider. sa yo nexe nga wo di wo bu gaaw bu la nexut nga bayyi ñi japp ni ñu tej leen ci mali foro ñi nga door leen ñi nga ray leen ñi nga nexal leen ñi ay passeport ñi ay huit ñi ay milliards ñi nga dag suufu askan mi jox leen ñu jaay li le senegal mënee su ko wax boo doon lim fi ba suba lo wax wax am lo fatte te lo wax am na ko xam lo xam ne xamoo kon ñoo ngi leen di ziar li ni wax ñepp ko xam yal na dimbalu ñu yal na taxawuñu yal na yalla takale ak France yal na nguuru France tas ba mu tegg ko suñ kaw senegal yi sonn lekkuñu naanuñ fajuwuñu jànguñu amuñu benn xam-xam duuñ ay nit ci kaw suuf keréewuñ dara mënuñoo sax dundal seen bopp dañuy yalwaani ba léegi lépp yoo dem ba yëy seen xel yi moo ñoom sax bëgguñu lu jóge Sénégal loo fi yor lu Sénégal defar sénégalais bëgg ko yooyu yëpp pexey France la pexey tubaab yii la pexey nit ñu weex ñii nga xam ne baaxuñu nit ku weex bëggul mbokkam gëmul mbokkam wóoluwul kenn tubaab kër gum def fenêtre la ca def ca weer jamono bu ne ma ngi yóorlu dëkk dooram waxu balaa nag comme bokkul ak dëkk amul confiance ci kenn jëkkër ak jabar sax bu ñu àndee intérêt la keroog bu jeexee keroog la sëy bay tas amuñu worma xamuñ démb duñ toppatoo seen i wàjjur seen xaj ak seen doom moo leen seen ndey ak seen baay seen yaram baaxut seen kawar day ruus dañoo ragalu naaj ragal sedd dañoo feebara feebara ba pare nag gëmloo ni ku ñuul ne ko yow sa der bi baaxul sa kawar baaxul del jënd sama kawar gi del monte say ree del def say xef del jéem a mel ni man yow baaxoo suñ cerveau bi ci bopp lañ yeey bam jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tubaab day yor doomam ba doom ci kawar gudd mu dagg ko jaay ko jabari président de la république africain yi ak ñeneen ñu ne ci suuf ñëpp ñu jënd ko lu seer la ñu a tabaxee seenum réew lon ko kawar tubaab gi wicc ko naan sawa naturel yàlla ñu yàlla musal suñu ñu naqari nañ ko jéem a xool ndax dëgg la africain yéen dellu ngeen ginnaaw li ma waxoon sànq africain bu dee ak naat gu dee ñoo yem amul kenn ku koy kaas tubaab yi ñoo leen gën a xam ne seenuk dee du dara bu ngeen dee ci géej gi ba mel ni weñ ba jéggi dayo lañ cay wax benn yoon génn ci bu ngeen dee ci jéeri ji la même sos bu ngeen dee geer la même chose réew mu leen neex ñu dugal fa rébellion yónni seeni soldat ñu ñëw fa ci façon dugal fa ay seet ñu fa gën a néew xel ñu formé leen ñu rey ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñaam maanaa doon contre français yi xeet woowa jeex ñu xaaraat beneen génération ñëw looloo dal Côte d'Ivoire looloo dal réew yi bëri ci Afrique yéena ma ko gën a xam yàlla yàlla musal ñu France ak politique français yi dara lañ ñu jëriñu dañ ñuy jëriñoo waaye loolu pour mu dañ nag pour mu dañ foog ñun ñu xam ko ba bañ ko Macky Sall xam nga ko te bañoo ko bañ le wooñu ko politiciens yëpp seen intérêt suba moo tax xam ngeen ne lii Macky Sall yi bëgg a def intérêt France kese kese kese moo ci nekk amul benn intérêt sénégalais même ñi am passeport diplomate ak ñi am ay oto ñu fi jël xaalis xam nañ ne bu Macky Sall demee la réew mi gën a baax waaye intérêt France moo ci nekk mu force waale ñi ca des ñëpp ak ñu seen intérêt ñi nit ñi nga xam ne ay égoïste lañ bëgguñu dara lu dul seen bopp bu ñu xasee lekk ba suur li ci kër gi mën naa tuuru seen yoon nekku ci yàlla ñu yàlla musal ci xeeti nit ñooñu ab noonu tubaab yii ngeen di roy bëgg a mel ni ñoom meluñ ñi ngeen mel africain yi bàyyi leen bëggal sa bopp kese su sama mbir baaxee sama diina baax sama tarixa baax sama kër baax sama néeg sax baax kër gi sama yoon nekku ci tant que loolu ñu ngi koy am duñ mas a jëm kanam buñ ci bàyyi xel lii rek moo ñu yàq keneen koo fi indi woon it bu demee ba toll ni Macky Sall def ni Macky Sall yal ñu yàlla musal ci loolu waaye comme am nañ ñoo xam ne digg nañ loolu waroon nañoo góorgóorlu moos jox leen réew mi ñu contre tubaab yi di fekk tubaab yi bawuñu gis nga tubaab yi galal ñu pour ñi dem de dañ ñoo japp rek dañ ñoo yew buñu baaw rek ñu demal suñu bop buñu baaw luñu ñëk rek moy dañuy lek ba sour commencé xalat nan lañuy démé waye li ñu njëkk dañ ñuy xontu ba légui yalla nañu yalla musal ci loolu alaykum wa rahmatullahi wa ah jërëjëf mbokk mi daanaka waroon na taxaw fi laa it dama comme si gat sa gat sa lañ tollu dama ñëw pour gat sa gat sa ba lañuy continuer gat sa gat sa gi nak ki laay ñëk tontu ki nek ci ci mburu mbam yi neena ma waji ji xana tango comme yeen ay dem ngeen luma tang tang tang tàng damay gertal kii xanaa ma ñor xom te yeen comme du ngeen lek yap bu ñor yeen yap bu am dara ngeen soxla yeen seña seña senegal moy seña senegal seña yeen yap seña ngeen ci xam comme lek ay nit moy mom ngeen di mom ngeen di jëriñ ci kaw suuf motax lu mu tang tang damay gertaru bu ma ci koku ma ñew ci la lion mi xawma la lion xawma la la lion yow Lalion la lion bi nga def la jiji deng mune akena tan jiji mo la laa gën tey foofu état bu Sénégal da nga bëggono siw siwal na la état bu Sénégal mo len di fay yow ram ji la ciot yow la état Sénégal am sa ñëk yow ya nek ci daral bu ñuy waxaalee xar doome xaram ji yow mi melni beewu gën gi dag lu tuti nga yoon gën gëne kecit sa bajo amul kubir ngelaw ñew rofu weñ ñëw roofu sax ñëw roofu ngootoot ñëw roofu weteñ ñëw roofu lu ñëw roofu yow yaa am njëg comme siw nga bëggoon rek siwal naa la di taxawaalu kër jàmbur yi mel ni xar bu rëcc doomu xaraam ji jigéen yi lu yées biir Sénégal rek réew mi fu mu mënti daju rek ay pooj ñooy guux ndox yu bon yi pooju jeeg bu ma nee guux na xam ngeen li ma wax doomee yi yu bon yi doomu xaraam yi fu ñuy toroxale Sénégal rek doomee yi yéenay tag ñi toroxal ta kenn du leen ko wax nag nga ne da ngaa bëggoon siw siw nga voilà ma pare ci kooku nag ñëw romb ana sama crucheur crucheur wala, ma épinglé woon naa la dindi xaar ma ñëw dindi la voilà laa leen demal léegi nag ci gat sa gat sa laa jëm damay njëkk a jàpp kii ne ko dabaj lu xale yi ànd ak sonko dul woon Ababacar ma ca lant noore kilifa diine yi ñoom sëñ Muntaxa ci réseaux sociaux yi gàddu yi nga fay jàng sax da ngay tiit da nga naan ndax. tim cham ba pare photo Macky Sall la def de Cheikhul Khadim cham sa data bay katal sa nday loy def fi demal comme photo Macky nga def yow ya, gor jigen nañ yeggali. Ya, Ababakar pare nga ki moy Ababakar Mbuub borom lantinoor ba ca nattukaay ya ndax man dama bëgg waru wala dama jutu wala yenen l'islam ci yenen dëkk yi mo baxul yen dal yenay wal islam wa jaxal na ba yow ababakar Mboup kalasnikov kalasnikov yor ko ci bir dëkk diko ko ay nit ñuy daanu lolu matul won débat may wax ngeen tok nak banan di tuddu muntaka ta du wax serigne wala nan mbey si Mansour te du wax serigne lolu kon yeen ray nit mo gëna dagan tuddu sen turu serigne te sen tuddu sen turu yalla yi sa tek ci serigne ababakar bu ya wax lolu gis na mbir mi pour ngeen xamne ne mbir mi du Ousmane Sonko Ousmane Sonko na dem tok ak maki ngeen xol nuñ koy def bu Ousmane Sonko demone tok ak maki comme ni ngeen koy forcer pour mu dem seeti Macky Sall di ngeen xam nan lañ koy def pour ngeen xam ne problème bi du problème mu Ousmane Sonko du ko topp ci Ousmane Sonko du Ousmane Sonko la yàqal yéen yéen yéen a bëgg lu bon yéen a bëgg lu bon xaaral coow li coow Macky Sall la ku lëngoog moom rek am nga problème parce que xam nga lu tax xaaral ma andil la ko parce que yow Ababacar yow nafiq bu bon nga yow Ababacar Mboub yow ci doomeraam yi nga bokk yow nafiq bu bon nga kii Homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des, associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par bah, exemple. ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ah, ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est mm. sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société mm. Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que voilà Babacar Mboup Babacar Mboup coow li coow li li du Ousmane Sonko du ñu and ak Ousmane Sonko du dara sen kilifa ye bëgg ku bon sen kilifa yi ñoo bëgg ku bon ku bon nak ku ko bëgg fu mu jublu tok yeen ngeen laq ko ngemb ko luñ la yak yow te yow wax nga ko ma andil la fi nga ko waxe Babacar ki du yow dem na ci sëñ Abdou Al Amin dem na ci kilifa yépp wax leen ni leen ni ñaari mandat kenn waratu ko def ci réew mi. loolu tax quinze point benn bi ñu dugal ko ci pour loolu ñu reglewu wu ko définitivement. léegi kon moom bi muy wax loolu xamoon na ni contexte mën naa tax mu soppi ko mu dem wax ak suñu kilifa yooyu suñu kilifa yi appuyé loolu doon seede ko ñu war a ñëw tey jii loolu war a indiwaat ay tumulte war indiwaat ay coow ci réew mi ba ay bakkan war feeru tat kon moom mu wane ni. moom mooy kilifa réew mi waaye amul kaddu moom mooy kilifa réew mi waaye ab nax naxaatekat la day naxaate moom mooy kilifa réew mi waaye ab warkat la parce que dafa nar a war askan wi li mu leen waxoon ak li mu wax de bokkul moom mooy kilifa réew mi waaye tegul jàppewul nawle kilifa askan wi waaye de la même manière. mi ngi bëgg a seedeloo suñu kilifa yi ni leen yéen a ma seede woon. ndax continuité la même bu fekkee que Sidi ga continuité la na Touba dem dem ni kon ci lañu ni vous sédé len ma dama bëgg li teunk ko ci ñaar yi tay ji ma ngi ci ndolu bëgg wax bu ci wax gis nga. Mm. ban message lay jox askan wi. <coughs> ban message lay jox jeunesse bi. ñi nga xamni ay ndaw lañu 20 ans lañu am ko kilifa mën naa wor kilifa mën naa nax ak njabootam nax aw askanam waaye tamit ñu ni kilifa ak diine war naa mën a seede lool ba noppi noppi ci. Ah. ak yàlla wax yépp ci wax lu ci wor ci ñàkk ñu ni kilifa ak diine war naa mën a lool ba noppi président war koo jalgatiwaat waaye ñoom ñëpp ñu neutre ci noppi ci duñ ci wax. Hmm. moo tax ma leen di aviser xam nga àggaguñ ci lool. Hmm. nañu bàyyi xel piège bi mu leen bëgg a dugal. xam nga am na waxi waxi booy wax ci mpénc dafa am yoo xam ne léeg loo ci bëgg àgg. waaye nañu def très attention ci ni mu bëgg a désacraliser mbirum diine ak kilifa diine yi. Ah, ah. bien sûr ci lii. ah seede leen ma lii laay def jóge ci ni la contexte taxoon naxee mbaay dama leen di nax léegi leneen laay def loolu suñ ci àggee. kilifa yi na ci pat. Ah, c'est vrai que ni waxagul buñ ci noppee. non àggaguñ ca. moo tax ma hmm. leen di artu man may wax message bi pour mu àgg ci ñoom nañ bàyyi xel loolu. suñ ci àggee lim mu bëgg mooy la cay juddoo rek moy ñu gëm ni kilifa diine yi nekk luñ fi yàlla mais seen bopp lañ fi nekkal. Ah. ndax buñ ñu fi nekkaloon yàlla non bien sûr. gars yi dañu nekk ci logique yu dangereuse yoo xam ne il faut ñu xam ko buñ ñu fi nekkaloon yàlla. yàlla tey su ma leen jëlee seede ci lii devant le peuple sénégalais lii yàlla tere ko ñoom ñu nekkal fi yàlla bu ma bëggee jalgati loolu dana ne ma eh lii bu ko def ndax waxoo ñu woon lii. te duñ ko wax ak man ci ab neek ndax ba muy wax ak ñoom loolu dañ ko filmé woon fs ah. jël ko ah. da nga ko wax publiquement ni ko ñun kat nga xam ni lii cautionné wuñ ko tey cautionné ko sula loolu mooy mën a tax askan wi ak jeunesse bi hmm. dañ ni suñu kilifa diina yi day fañ nekkoon ba tey ñoo nga fa fa maam nekkoon ba tey ñoo oui xaxar yi dem ci aja yaa ko waxal sa bopp nag problème bi yëpp du Ousmane Sonko de ab fenkat ku ko bëgg a jël takkal ko sa wet soow mbéy gis nga mango bu nëb boo bañee ay weñ rek bu ko laal mango bu nëb boo bañee ab weñ bu ko laal ay kilifa ñu ngi ci réew mi kenn tudd leen parce que waa ji jublu fa jubalu saay bu rayee doomu jàmbur yéen ñiy wax nag xam nga yéen yàlla daf leen nattu senegale moo gën a neex a merloo ci àdduna yéen sénégalais moo gën a neex a merloo ci àdduna ñu seen ndey moo gën a yomb lépp loo gis ci këru àdduna sénégalais sénégalais laa de waaye news leen moo gën a yomb soxlawul ngay xam turu nit ki soxlawul ngay xam fa mu dëkk soxlawul ngay xam ndax ku ñuul la wala ku xees soxlawul ngay xam daal joolam daa gàtt soxlawul ngay xam ndax mbër laam du mbër soxlawul ngay xam dara yow laalal ba besal benn bouton rek muy seen yàlla yi boo laalee foofu rek fu waaye mënoon a nekk ku ci nekkoon ci bënk ku ñu bënkrisé woon sax noo def mu màbb ndey suuf si boo xefee sax am na ci ñoo xam ne yeewu nañ ci armée li parce que man pour man ñi ray boy ci biir dëkk bi pour man ay néew yu dekk la te leer na ma la ñuy tudd sëriñ si moo tax néew yu dekk maa ko wax tey dund te di leen xool nag di ko wax loolu mooy seen jikko da ngeen di xam fi problème bi ne di ngeen wut ku ngeen ci ñuux yéen da ngeen di fóot ba pare yére bu tooyul tilimul ngeen ne ko cupp ci biir sumb bi tooyalaale ko ba pare boole lépp wañandoo weer ku ci bokk ngeen ba Ousmane Sonko la ci yoonam ay kilifa yu topp ku bon lu ci yoonu Ousmane Sonko lan mo ci yoonam loolu lay laaj ki taxaw ak yeen ne len dina nangam nangamul dina li nangamul ray rey njabootuk jambour yeen ngeen ne sen njabot deewul ken deewul waye sen kilifa yi ken bum len tuddu tudd te kañu jox mbibati mom day waxu ci ñoom say su nek ñu diko ko ka fitti mu ñu waxe ngeen ne dañoo tëddee ñaanay waaye waaye nañu leen wormaal may wax ku melni mam Adama geey genn di wax mam Adama geey yow so yéen yéen yéen du ngeen ay gor yan kilifa ngeen di wax yéen jàpp leen dafa yomb parce que du ngeen ay gor du ngeen ay julit kii. liggéey ci Sénégal ruus bi sa xaju Sénégal. man danaay wax ne. bis pénc bu yonent yi ramoo. xaarifooni bi lay ramu. yàlla nag mu ne bu boobaa moom it dana ramu dana tibb ab tibb. ci ñi war a dem safara yóbbaal jàpp. ma ne bu boobaa nag. man Ousseynou bàyyi leen ma ñi ci des ma def yàlla intervention bu ma defee intervention bu lànkee danaa ko dugg moom yàlla xenu ko ba ca kaw su ko roccee nag danaa ko duggoo duggaat busula ko su ko roccee danaa ko songaat lalowaale ko su ko roccee danaa ko duggaat faqat ko su ko roccee danaa ko duggaat lalawaale ko su ko roccee danaa ko duggaat nengeñ su ko roccee danaa ko sidoo mu damb bu dammee nag di wuti ko comme jam mën a gaañe daw leen dugaal nan bu dee jara junne ci jama daqay ma gaayi siikar leen jëmme aarif mbiram day foor sigi baax am mën ko nen buy yéen yéen man man puub ci seen jumaa yi laa wax jumaa yi ngeen di laaje ndawtal laa ne puub kii dam kii ndengeñ na fi sido dugg na ko caxabal na ko wër na yàlla ba pare jël tànk yàlla ma ngeen jox jumaa tabaxal ko ko moo téye tànk yàlla damm ko waxu leen kenn newul yaa ansubila kenn jógul def kii kenn jógul tab gémme Ababacar Mbuub waxut yéen daal yéen yéen yéen non non non waay min réew moo tax yàlla roof leen caxabal di leen ñuus xam nga ne kii taxaw paa bii taxaw nii kilifa diine bii taxaw nii wax lii pour dégloo ay waa këram yàlla da ko xoolal yalla da ko Maya Maya Maya Maya may yi ko yalla may nag xëjul ci yurgi waye pour mu meuna xam ndax liko yalla may xejna ci yurgi da waron dem xoli mamam ba nopi ndax mom dam na yalla wala yalla ko dam ba mu aksi wol sax da ko da fa yonne rek ñu teural ko war nga dem ci armée li xol ñaata la yalla teural fofu ba pare nga doga ñew yalla may la rek xamna ñu tey sa ween yu guddi toroma jolle rek nga jog na xey fasiyene nak amo lokoy fayé ne wa ko yàlla yaa baax yàlla yow mi ma jox bànneex yàlla yow mi tax ma mën a xam lu neex yàlla yow mi mën a tax ma nangam jaajëf yàlla maa ngi lay tagg di la gërëm yàlla maa ngi ñaan nangam naa defoo lool de waaye nag léegi da ngay ñëw damm tànkam defal la teranga bu dul jeex yéen bu leen borom alal joxee xaalis ngeen tagg ko may ngeen ak ay loxo yu ngeen mën a jële xaalis dund gu ngeen mën a dunde ba xam luy xaalis dund gu ngeen mën a ba xam ndax lii saf na xoromam déet dund gu ngeen mën a ba gis ay taatu jeeg yu baax dund gu ngeen mën dugg ba mën a ay per muy neex dund yi ngeen mën dugg ba mën a tëyëx daanu loolu yëpp amu leen lu ngeen koy fayee te bu leen jë borom alal joxee xaalis ngeen tagg ko tatagal ko gërëm ko seeni ngeen ak defal mënalu leen ko dara loolu damm tànkam damm tànkam ngeen ma da ngay seetlu su fekkee da seetal ma lii rek jëf ju ñaaw ji lii mi ngi ci réew mi de ñu tëb ko jaxeet wàcc ko seen suufu tànk yi daw six mille kilomètres naan waay ilaha illallah jëji nere nañ su suñu temple yi jëji nere nere nañu pop nañu toj ñu mimbar yi yi ñu yewaane xaalis waay waay ñun fu jëm ay waay kër yi yàlla yàlla dam ngeen tànkam bi la la soxlaati ci yéen dam ngeen tànkam bi lan la bëggati ci yéen ku ngeen damm tànk bi xanaa da ngeen damm bi jox koy mbéegi ba pare dugal ko ci jàkk ji euh, confiné ko kan moo mës gis li ku mës gis li ku ko wax nag ñu ne wéy nitu Ousmane Sonko yi waaye waaye dañuy yàqal Ousmane Sonko yow da ngay yàqal Ousmane Sonko lu ci yoonam lu ci yoonam Macky Sall nag li mu wax démb waxu fi lenn lu dul nëbb ne Fetu gay pride fetu gor jigen yi moko andi France gi Fetu gor jigen moko andi indi France gi lolou lay beug neub motax mu genn di wax ci waxu 3e mandat pour ñu 3e mandat di wax waaye gor jigen yi ñoko ko ma ngek ay vidéo yo xamne beuguma ko jox kenn xamna ne nangu dañ ay téléphone Ousmane Sonko naka Ousmane Sonko téye vidéo yooyu mok gor jigen yi na leer dama bëgg rek mu leer parce que yeen len dafa yomb maki daf fi ñew pour feetu gor jigen ni moko fi andi léegi nak il faut mu neub seeni bot genn wax waxi 3e mandat ngeen ngank ci lool mom ma nga ca lenen moy la ko mer muy affaireu gor jigen ni la mu demoon nan dafa am ñu yak diina ji valeur yi dafa am ku koy yak tok ci ay kilifa diina di wax bu fekke na yéen ko yebal ci ngeen bok motax petition bi ngeen defoon nangul len ci yeey yabbi wat a ko yebal mu ñëw fi lolo ko fi andi na xale yep yek na ñep yek xaritu serigne si ñëw na fi fête pour gay pride fête góor jigéen fete bi sek di promouvoir chaque at mom la bayam Macky Sall ñew fi ñewal fi ñew fi ci turu kilifa diine na leer 95 de musulmans lolu mo fi am na leer kat dama bëgg mu leer mu dugg seen yuur yi mi ngi non ab kat la kat la kat la ku ko top yak moma yam luñ la wax luñ la wax yoro ku dem ba marché jël paaka tek sa pour rendi ñepp yegg dëj bi ya jaay sa bop ya dé fa nga war fa nga wara bé ñepp yegg nañ jarul taggi lima wax du deug bu du deug nee ba du deug ubbi naa bi ba ma gis ku fi ñew nak di dugg di wax leneen ku am soxla ñewal wax ku bëgg saaga yit bo saaga ba pare togal nga xaar ma ku a gis li yeen yeen yor lu ne weng ah ah yor lu ne weng yor lu lo xamne kenn mënu ko lijeenti ngeen bayiko sen seen suufu tànk may wax mam xar mam Adama gey mu indi ko sax baberaam ji ñaawayam di muy melni dayu muy melni ku lek ku fanane lek ay leung ba xey day mom war na dem lijeenti ji ci fan la bok xar ma andi ko ma andi ko ba pare wax ak mom waxal ma dégg na ma ne nopp wax feñ alors kon nak ben exemple lobby ngoogu parce que mom dafa am ay lobby yu nek ci ginnaw moo a infiltré beaucoup de partis il a d'abord infiltré le PDS détourné fa xaalis bu bëri ci ay vente de cartes ci a euh, xaalis bu Ablaye de joxoon joxoon pour faciliter les inscriptions des militants euh, sur le fichier électoral seeni pa Akhenaton lay waxal nii de waaye nag Kocc wax alors kon exemple lobby lobbying, parce que moom dafa am ay lobby yu nekk ci ginnaaw Montam a infiltré beaucoup de partis. Il avait d'abord infiltré le PDS, détourné fa xaalis qui a eu vente de cartes qui a eu bu Ablaye de jox pour faciliter les inscriptions des militants euh, sur le fichier électoral Ce n'est pas ak qui te euh, pour qu'ils s'inscrivent dans le fichier électoral Wa PDS d'accord, comme transhumé dem APR mu jógee APR transhumé Pastef voilà un homme dangereux qui passe son temps à infiltrer les partis parce qu'il est en service commandé pour le compte de lobby obscur. yo xam buñ bu ba ca kanam Jamra dana ci génn ay révélation yo xam dëkk bi dana yëngatu dama la doon avertir nak yow comme que tu as tu n'as pas la lâcheté de venir ici au Sénégal pour def say ñaawteef waaye tok ay des milliers de kilomètres me dit le yëgal ne que ça ne passera pas parce que tu sais très bien que tu es sous le coup d'un mandat d'arrêt international xam nga man xam nga man lan moo ma neex ci sénégalais yi yéen tur yi ngeen yor fan ngeen ko jëlee turu faramaçonnerie boobu ngeen xam fu ngeen ko jëlee may wax mu naan ma mu ne jamono maa ngi préparé loo xam ne li ngay préparé mi ngi bëgg a yéex de yow maam bam fi ne ay capote mën nañ ko jaay question laa lay posé rek bañ fi ne ay capote mën nañ ko jaay ci jumaa yi da ngaa xëy porté ko waa maam Adama damay laaj maam Adama Gueye gologong gi yow mi mel ni ko fanaanoo lekk ay lëng xëy day ngay niroog dayu lëng ku lekk ay lëng ba biir bii daw mu day ko loolu rek ngay nirool yow problème mu àdduna da nga ko am ca ba nga juddoo ñaaw xaw ma ndax yàmbaa ci Sénégal léegi dañ ci yokk beneen dose bu gën a garaaw waaw wala déet question ma di la laaj nag benn laaj yow dama lay laaj maam Adama Gueye yow Ahmed Cissé ay capote la fi wax nañ ko jaay ci ay jumaa wala ñu doon ko di séddale ci ay jàkk defe naa loolu la wax nga porte ko plainte waaye yow Kalashnikov yi ñu yor ci biir réew mi Kalashnikov dafa gën a dagan wala damay laaj yow Kalashnikov yi ñu yor ci biir réew mi rey fi ay nit jógoo dem porte ji plainte ñooñu wala loolu ci jikko yu baax la bokk wala loolu ci diine la bokk yak jam yaag eh, waa kii eh, nu mu tuddati sàmm jikko yi yéen yore kalasnikov di dox ci bir dekk bi pour ratatata tuy di ray ay nit dem ci bir geej gi sanni len lolou dafa bok ci jikko yu rafet lolou dafa bok ci diine ngeen wacc ko sen suufu tourni di lijeenti ñu nek ba 6000 km di wax ay mandat d'arrêt seen parti bi mam Adama ge yow lay waxal yow lay waxal parti bi nga xamantene ne ñoo yoroon lak ñoo yoron maîtrise yi yi ci biir dëkk bi di tiire parti bobu nga bokk ba tax mëno leena porte porte plainte ñu ñoo amé mandat d'arrêt ak CPI ta bala nga koy comprendre né leen sa way mu lâché wala ñu japp ko ba ba mu soti di nga xam ndax yow mam Adama Gueye sa ñuulaay bi yow may diri sa ci xaxam bi watat la ci xom-xom bi ñap sa ci biir daakaande ci parce que yeen ay ngeen yen li gëna yees ne seen suufu tànk ngeen daw 6000 km di duulal ay nit naan ay lobby obscur yéen xam ay lobby yéen ñi xëyul gontuwu leen seen fu fënax na ngeen ñap seen nday ngank rek di muccaat yàqu xalé yi yen yéen xam ay lobby seen mandat dara bi nak yag na mi ngi lapar lapari ba xwan Branco ñew na xwan Branco ñew na jaxate jaxate delo na avancement mi ngi ni mom mom borom borom borom sama nday yonante bi Eh, eh, way jur yonante bi gënul sama way da ngay wax li mu yëkkati. Moustapha Diakhaté lii nga xam ne nee na waxal li mu ah, xam nga euh, euh, euh, Badou yow xam nga mu baax baax ma may la sama bopp nga ni ma. dindi lettre message deux heures du matin téléphone bi sonné ma ma ubbi di ko xool soo déggee ñu wax ci man dara dangaa war a lan say àq ak man mooy nga boo ma laaj ma lu xew lan moo am xaarment dana benn journaliste bu ma interview yoo xam ne technique la ban xaw ma ko woon sax déet mooy bu ñu la interview question bi du génn dañuy dagg réponse réponse rek lañ lay tegal dama doon wax ci saay-saay yi bëgg a réew ma ne état bu Sénégal yor na saay-saay yoo xam ne yor na pardon yor na police ak ak soldat yoo xam ne saay-saay bu gën a bëgg yàq réew mi état bi am na doole jum la delloo sa kër police sola zone Sonko danañ ko jàpp ñoo ñuy jaay nee na dañuy xaru ñu mën a doon bis bu police ak gendarmerie jóge ñu ngi ci war a jàpp daañu leen jàpp ñu ngi ci war a delloo seen kër daañu leen delloo seen kër ñu ngi ci war a rey daañu leen rey parce que nag yeen wax mandat d'arrêt international da ngeen ko wara jël takkat suuf Antoine Diome nak gis na la ngay lapar lapar yalla dimbali nak dem na ba gis Khadim ak malik Antoine Diome Khadim ak malik dina photo ak ñom won la du da ngay jaay ñap sanday rek ray ay doomi jàmbur say doom ak fi kenn du len ray mais Khadim ak malik dina photo nga xamne ne xam nañ fi say doom ne sel sel jarul toxal nak ñu nay sëti mbélé lan dañuy gis guddi di gis bëtte di tok di dóor di gëm dóor jonkon dóor defendu dóor jaxan dóor na leer malik ak xaadim xamna fiñ dëkk bi sel na leer de voilà yéen nag jamra jamra tokato yamba bu won bi mamataar kala doon jëndali yambaaji bagi mi ngi fi mi ngi fi, 1000 francs ya nga ko doon jox muy jënd ji yamba ngay tu sa ngam yu mab ndayam ni ngi yéen sénégalais nak li lima neex ci sénégalais sénégalais day sacc mbolo top ko mu daw ba ci lëndëm bi laqatu rax ak mbolo mi nak naan saccé saccé yeen mën ngeen don ay di jiñ ay nit ay faramaso ay gor top leen di ñu sen day ngeen jaxlé di jiñaati faramaso amu leen fu ngeen wëru amu leen fu ngeen wëru li ngeen wara lijeenti sen souf rew bu ngeen tebee six mille kilomètres dem di lijjanti ji foofu ngeen war a ne ku ci dee ñaf sa nday dem safara parce que ay doomaraam ngeen yow ak beneen mbaam àll bii dëkk ak duulkat jël duulkat di ko ki ki nan la nit mën a dëkk ak kii xadafi ndem si yàlla dem na ñu gis ko si yemen président ko gis ngeen fa mu mujjee ñu gis ko tey si syrie xam naa ne fa mu mujj aussi du neex njiitu réewu syrie ñu gis ko si sénégal askan wi dafa taxaw ne duñu nangu ñu jalgati charte réew mi du ñu nangu président bu def ñaari mandat te constitution bi yemale ko foofu naan de am buuña du ñu ko nangu kon askan wi léegi dafa nanguwaat boppam mel na nu loolu ci àdduna bi yëpp d'ailleurs prix Nobel de la paix sax boo koy xool dañ ko jox askan yi ci ni ñu moomaatee seen bopp mouvement populaire yooyu ba ci Amérique maanaam ci kuréel yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci wàllu yéen ngeen nekk ci réew moo xam ne lii ngeen fa gis. jaamu alaji Malik ya jaamu Serigne Touba yeen ngeen ne ci bir rew mi ku nek di yapar yapare di ray di ray sa maget gu xoba das di wut ku ko ababakar Ababacar Mbub yeen ñaar yeen ngeen bayyi ci rew mi ay kalasnikov bayyi lepp ci rew mi nan way dafa am ko xamne dama ko setan parce que bo setané ku ñu door balu fetal ci bop mu daanu du yëngal sa dara parce que dëmm nga waye ku muntaka tok au lieu mu ne Serigne muntaka wala mu ne Serigne mbay si Mansour yalla Ya kala alhamdulillah fatabarakallah ko sel ko magge ke yalla yalla godal ay fanam yalla yalla ko ko nga meuna deglu waye kuñu ku balu fetal lolu mënu laa ku ne muntaka wala mbay si mansour sen tour yi nga xamanteni ba ñuy ñew sëriñ top ko tour rek ko top ñoñu ku ko tuddu nga yëkëti balu fetal ray nit mo gën ngay tuddu tour yoyu yeen ay nit ba ngeen ne ay nit nit balu fetal yi mënu leen ci wax de waaye alhamdulillah. alhamdulilah parce que léegi kenn doxatul ku bëgg a yow jël sa mbàjj rek guux say morceau feesal say lex ba pare ñi bëgg a yeewu ngi yeewu yàlla ay xel la jox nit ñi ak lan làmmeñ gu ñu mënee tontu te nag yéen da ngeen war a ñaan lii sotti doomeeraam ji dem ñu bañate topp kenn ñun ñu ak def fair play waye bu ngeen dof lo ba la fi daloon Mamadou Dia dal fi si ngeen di comprendre ndax ñi ngeen di duulal naan dañu saaga wala dañu wormal saaga yi yeggagul li échauffement la échauffement la ba ngeen tas yaakaar ba pare su ngeen tasee yaakaar ba pare fi ngeen koy dundee mooy wax ji parce que ñëppay gedd Sénégal ba pare di leen dóor ay missile yoo xam ne dootu leen kattati dootu leen naan parce que laal leen dafa yomb yéen laal leen soxlawul yeewu 6 heures di matin togal ba 10 heures def garage matinée dem liggéey ba sa poos fees nga ñëw naan sa ndox mu sedd matt sa morso mburu tok quelques minutes nga rajaxe Sénégal yëngal yori jaaxaan sa mat def brancé massage yi mat laa bi massé la ngeen di joy suba ngon ngoon guddeeg ba paré nak kenn ku nek dama lay digël demal fi ci administratif français bi nga jaar fa nga wara jaar ñu jox la ñu jox la autorisation port d'armes point jeex nak buñ né puy jekku la nga teug bo len jekko teural len dëmb la buy ray ci gor point ya pa autre chose boy nak mom legui yew nañ na leer na leer de saagante mom ku ma fi fekk si ñew bo ñewé fi nga may fekk di nga xamné ab sénégalais la comme yow sa da xam xamp jox ma ma xamp jox ko boy mom yew yeewu nañ gaay sëriñ du buur talibé du jaam est-ce may dégg fii ceeb bi bu seeree wala courant bi seer wala ndox mi seer njàng mi doxul ku feebar doo faju barke Seydina Mohamed benn sëriñ du génn kaas ko na leer man maa ko wax si sa sim benn sëriñ du kaas ku feebar fii doo faju ñaata doomu aadama nañ jàpp ci kaso bi plus de six cent personnes sëriñ bu dee ama ci ab dëkk biy tàkk bu noxee ñaan diw de woon a magi diw de woon a magi mani way wi kep gal ken dako way ci tefes Macky Sall gaynde gu degul jat la xoo ci wo wo conférence publiquement ku ne la bo dewe ma yob la àjjana te mun la defal sa aduna bu mu la sonal lu samay wax nak ngayen ma doulal du man de ngayen ma doulal nak man dama do yegg la rek ne bo yaangi ñew ñëw génération bu ne nak <coughs> yeen xam nga da ngayen degul jat bu ngayen déggoon jat di ngayen teela def sabar gi mbasa mbasaa ci ko mu leer parce que xamna naa ne jot ba juddu ba pare gis nga ñun dañuy raay rek waye génération gi ñew fekke li ñuy wax billahi buñu xapaté xàppatee seen yi ñew buñu xapaté waxuma la yéenay tontu de waye seen mam yi jógee ci armée ni ñew li jeun ci problème lu leer la leen wax nag comme yeen du ngeen dégg japp ki kan mako ko top Macky Sall ku koy bëgg ko xam ne ku jóg xass neexa xass doon doomeram doon mbam al mbam këx mo xam ne ma ko ko xass man duma ko xass ay waay baña gis ngeen xay wi su passé góor gu ma fi déggati muy jaay fulla ak fayda ka naqadi dara si kaw jabarama ka dóor jigéen aka jaay soxot ak yabaate danañ jaale góor googa ci ci góori Gambie ak Sénégal yi Macky Sall mu ngeen di seetaan muy jël seen doom mi di dóor di rey di nangu seen nit ñi di foqati seen nit ñi seen loxo ku ko neex mu foqati ku ko neex mu fetel te Macky Sall ci boppam mel ni gën gu sibbutu mel ni Ami Jóob mu bu ne woon daw leen tey moom mooy mooy njëkk dee ndax du man a daw Macky sàll moo mel ni ñay wu biit noonu soo gisee mooy rey nit ñi nii yéen la yab yéen góori Gambie Sénégal surtout góori Sénégal yéen war ngeen a xaru ji war ngeen a xam gàcce de yéen ñi dee jaay naqari dere seen kaw jabar yi di dënget dëngeti lu leen neex def su jabar ji waxee nga naan ko man góor la kenn du ma xilif lu ma wax mooy xam di jaay fulla ak fayda yéen a ne teg fi mu ne nii mel ni ay muus yu si butu mel ni gune yu xam ñaari xat jigéen ñi sax ak gune yi ñoo leen gën a jàmbat lima moo am ci rew mi kii dafa neex a xas kii ku ko topp yaa xam ban daraja nga yor bul ci takal Ousmane Sonko yow yaa bëgg lu bon yamba yi topp la yaa fekk màkk mango bu nëb nga ne ko duraam bëgg koo wan yamba yi topp la fen rek lay def fen rek lu mu wax ren génn ci lu mu ak yow wor bu la jàppee ray sax njaboot mi ngi ma ram la tey mu ngi ci ba xadafi ndem si yàlla dem na ñu gis ko Yemen président ba gis ngeen fa mu mujjee ñu gis ko tey ci Syrie xam naa ne fa muy mujj aussi du neex njiitu réewu Syrie mu gis ko ci Sénégal askan wi dafa taxaw ne du ñu nangu ñu jalgati charte réew mi ñu nangu président bu def ñaari mandat te constitution bi yemale ko foofu nan day am buña du ñu ko nangu kon askan wi léegi dafa nanguwaat boppam ne loolu ci àdduna bi yëpp d'ailleurs prix Nobel de la paix boo koy xool dañ ko jox askan yi ah, ci li ñu moomaatee seen bopp mouvement populaire yooyu ba ci Amérique maanaam ci kuréel yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci wàllu koom-koom lu mel ni Wall Street ah. nit ñi bañ euh, li nga xam ne noonu la àdduna bi doxee tey ñu ah. nit ñi bañ bi ñu wax lii moo ko fi wax moo ko fi wax xale yi nag laay waxal gis nga réew wax ji li muy bari yëpp ñi fay dund rek ko xam ñun gunge rek lañ mën man aduna du yag ba ma ñew di jootu sama yahi yu wow yii biir nan naan maa ngi wut dërëm bu am xel xalaatu ko sax gis nga limay ci def ni di ci sonu ni lenn dong la ci souhaité di ñaan muy bu xex bi soti won man na yor sama kan gu ndaw di wër grand place soo grand place ma tok fa dul histoire ndax ñun dañu mëna depp histoire di ko rek grand place yep may wër di dul rek man dal naa yor sama pilihan ak sama saako do bu ngeen ma mënee jox benn yambarum jeeg boo xamante ni dafa didim ma yen ko saag bi ñuy dox ci mbedd mi grand place bu ma agsi ne ko takkal mu takk ma toog ci njowaan gi na xale kaay leen fi la muntaxaa newoon fi la mbay si newoon fi la tàggam newoon aji saara fi ñëw njoloor duul fi ay duul yu tooy xet ñu rey fi fukki xale nangam waaja ñu duma ko ba muy waaja nangam nettal histoire bi de A à Z du kenn ta sama micro la yor nag tun gi sax dama koy tak ay baful fu fu way tol diko deg ko dégg histoire bi kala ka sul sa mam ñew parce que yeen dëpp histoire ngeen man ubbi naa ligne bi buma ma tuddu nak du ngeen ay nit su ngeen jogul def li sëñ Sam bay wax ba ngeen japp ne pa yi fi nek ni ñoo upp sëñ Sam xam-xam billahi bu yabo ngeen armel sax du ngeen ko am ci bir rew bu len yabo ku yabo rek xoolal requin bu ngaa nga plongé jox joxe sa bopp requin addi voilà lii daal moo leen am la nga bëgg de du saa du toog di mébét rek de du la jox dara mu ne adduna adduna rayante lañ koy amee da ngay xeex ak nit xeex ngeen docteur yi di wax ceux qui luttent sont ceux qui luttent sont ceux qui vivent ñii ñenn dundul rul ñii lutte ñii xeex di bëre ndax adduna noonu la noonu la ko yàlla bindee dañu ne. arabi dañ ne man jala na la ku wëndeelu am dara man ci sara ay sara ku am fit da nga am lo denc man xaaba xaaba ku ragal nak da nga soy da nga pet bi perte شاعر بن أحلق به الصبر أن يحظى بحاجته ومد من القرء للأبواب أن يلجأ أحلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومد من القرء an yalija borom muy guri bi yelloo na am li mu bëgg lépp àdduna ak ki nga xam ne dafa dëkk ci di fëgg bunt yi rek da nga mës a ubbi ko mu dugg wa mudminul qaraa'il la boo an yalija buñ ci voilà à ah, bon bu ngeen toppee doomu doomu xaram yi naan leen toog leen ku leen ne toog leen ne leen ko yow doomu xaraama la jur ku dugg ci live bi di leen jéem a ruube ci bëgg seen dëgg gii ngeen ne jàpp leen ne ab doomu xaraama ko jur doomu xaram la réew mi nag réewum doomu xaram la moo tax <laughs> ba dégool yónnee dafa ne mu jël Sénégal parce que ñooñu ay tête brûlée lañ tête brûlée nag tête brûlée la rek lay jur bébé brûlé tête brûlée égal bébé brûlé niñ bi ubbeekul quelques minutes parce que démb ubbi ma ñu xas nañ ma ba ma raab góor jigéen bii nga xam ne góor jigéen ñi lay maa ngi xaar maa ngi xaar ku ma fi tudd rek maa ngi xaar ku ma fi tudd man lu leen merloo moom yomb na lu leen merloo yomb na damay xaar ba bébé Rasta di def live rek ma partagé ko ay yoonu yoon partagé ko fépp dugal ko ci panel yëpp def ko statut yéen ñëpp a ngi sama liggéey mu leen di dagg rek du ngeen ci mën dara te kenn làqatuwul jàppagu leen kenn wax rek ngeen fi nekk allo allo waaw salaamaaleykum ji maa lay ziar waaleykum salaam <laughs> waaw damay wax li may wax rek patron yi laay waxal nee naa leen bu benn patriote foog ne maanaam man dem dem ba ci biir xeex dafa yàgg ak léegi dafa mel dugg daal doole gis nga dama la bëgg a ne nga ngeen def nii yéen a ngi liggéey da ngeen a liggéey lu lu pour yéen lu ndaw la waaye lu rëy ngeen liggéey xeex na

laale bi day am parce que ñoom instant intérêt pour daw dootoo ci gisati nerf bi bu war a boppam taxawal dootoo ci gisee genne ci ñoom ku ci fës naan day ñëw taxaw kon nag instant bi am ngeen baax dafa mel ne ngay xeexal nit ba pare àpp ba ba pare nekk ci montagne moom mu nekk ci suuf ñoom ñoo nekk ci barkaal gi ñun ñoo nekk ci kaw leneen laale bi rek lay xam ne bii nag moom mooy laal ultime na jeex tax benn am lu leen tiit nee na cinq bu am man pour man le vingt cinq mbir bi war na jeex préfet woo ñàkk préfet woo amul kenn ko ti le vingt cinq nañ amal mbir mi lay dogal lañ ko dogal foofu tas tas tasar mbir mi gis ngeen doomi xaraam yu ñëw fii gis ngeen eh, doomi xaraam jooju génn woon bagage am ñu doon ko xoomat eh, te mu dëkk parcelle Eh, góor jigéen bi tamit waree xaalis gis nga lu ko def eh, eh, nu mu tudd sax Portugal ñaaxal ñu doon tegal ndax ba mu daw ba mu daw ñoom ñëpp ay daw balaa ñu daw ku ci nekk xiir gi dina la daal bu en tout cas li may wax mooy que ne bu ci kenn kenn kenn tiit wala ñu lay gëmloo naan gars yi wala ñu naan leen ñi ngi jàpp patrouille ndax ngeen di tiit dañuy duul instant bii ñoo taxawee bëri ko ci mbartaan lan ñoom ñëpp la ñuy bëri seen day loolu la amul li may wax. jaajëf fi mu toll nii xeex bi daa neex daa gën a neex sax. bu ngeen comprendre woon di ngeen jóg gën a taxaw parce que moment bi ngeen mën a ñuus seen day vite fait moment bii xuwaan taxaw parce que ñoom ñëpp li ñuy dajale yëpp pour Europe la seen doom yëpp a ngi fii te xuwaan branco turu doom yëpp ku fi mës a kattu jigéen ba amub doom fi Europe gii ut ruq boko neub nak dugalal ci tunu mbam dugalal ci data béy foko ko dugal dina ko loqati jox ko xuwaan branco mu téye seen njaboot ci maram yi ngeen do allo gis def rek waaw jiji wi ma waaw mais gisoo xanaa li mu la yónnee ci sa whatsapp xoolagu ma ko sax ba ma nekkee ci liggéey du ma xool ba ma ma lim la li mu la yónnee dinaa dinaa ko wax fii te dama bëgg xoolal nga jàllale message bu baax ndax Sénégal yëpp dégg ko fan yi dafa am ay nit yu fëgg ci kër Sénégalais yi yaa ngi dégg ñu ni ñoom ñoo ngi jugee ci école médecine dafa am lu ñuy testé sa seen ay dret lu ñuy jël lu ñuy maanaam du la jam léegi nag bu la bu la jamee traite bi bu génnee ñoom du lay jox sida du lay injecté virus sida loolu la sa gars yi bàyyi xel beneen bi mooy Djidji nañu waxante dëgg. déggal kii naan ma doomu ëmbal bi yow boo demee ci kër Serigne si ñu ci bari dañ leen ëmbal bëgg nekk yéen. waa CPI bi ba ci kanam. gis nga fii lan ma am solo tant Macky Sall mi ngi ci pouvoir bi du mus a dem CPI nanu ñuus Macky Sall tey ñun ñoo am doole. Sénégal yi tey ñoo am doole tey na gars yi génn génn Macky Sall Ouattara mi ngi nii Keïta mi ngi CPI ba léegi mi ngi ci pouvoir bi tant que lu dëgg nu ndey Macky Sall mu jóge fi ci ñi yenn soxna yéen man yéen yërëm yéen Sénégal na ngeen bëgg lekku leen naanu leen seen nelaw doyul ci si waxante dëgg Sénégal yi ñoo ngi Sénégal yi ñoo ngi leen di wax bu dëgg bëccëg ñoo ngi gis lépp ci ji toj toj yi Macky Sall dëkk bi bu dee da ngeen yaakaar ni Macky Sall dana bàyyi nguur gi billaahi ma bàyyi jaamu yàlla maa ngi wax ci ji fii xeex rek xeex rek bu waaw su boobaa nag lépp mën noonu dem fépp yi te man boo la ma déggee Macky Sall du dem fépp yi Sénégal ñu ñuy juge ndeyam ah dugal ko ci prison yi yooyu màcc ko man loolu laa gëm bi ci beer ci ji fi dugg di ruube amul jotom fii loo war a wax ne la ñu jóg news Macky Sall merci Didi. jaajëf ayca ayca ñëw leen ci mbirum mbaam yi ñëw leen ku bëgg a woote 0033 641 02 15 04 xeexkat yi dee leen nangu nag wane seen i vidéo nag yéen bu ñu leen wooyee am ngeen fit te da ngeen di bëgg a làqu rek yemale ko ci saaga dee leen wane vidéo ñu jël bu ñu leen wooyee appel vidéo dee leen wuyu daw rek ngeen di def doomi raam yi bëgg a ba gars yi sëriñ seen yaay yi jur leen seen ñaari doñ yu tol yooyu seen yaay yi defe ne ay doom yu góor lañ jur ndekete yoo allo gars ku bëgg a participer na nga woote whatsapp ku wootewul whatsapp du ma la dugal allo allo waaw nuyu naa la bu baax waaw man dafa amoon ay kàddu yu ndaw yu ma bëgg euh, tàbbal rek euh, laaya ko sama bopp biir laaya ko sama mbokk yëpp biir. ayca ñu dégg. maanaam gis nga fi mu nekk nii. Ah. dañu war a dañu war a jëli maanaam tekk Ousmane Sonko gi tekk bi mu def te tekk tekk bi wax la. xam nga tekk tekk tekk bi lu muy firi. peuple mooy maanaam peuple bi. léegi léegi yéen la yéen war a jël seen ay gis nga jiji gis nga yëf yi dafa toll fa nga xam ne même ñi nga xam ne bu njëkk dañu dañu dañu togon sax euh, modéré dexuñu ah. légui xolal dañu dem ba dañu extrême man ma ngi nek euh, fi Canada uh-huh. euh, Montréal amna tamam benn mag ba nga xamné ne mu ngi Québec quoi parti français bi uh-huh. sama mag bobu nonu cadre la man juste man am plombe man plombier la quoi buy liggéey sama propre corps mais moom cadre la mais dama doon dama doon wax ak moom mais sama mag yi di ma wax wax yu waxu aal ya nga xam ne ba may wax ne dañu war a dañu dañu a ñoom ñëpp jëlaay gànnaay ku nekk utaay fetal jàmmaarloo ñi reyanteex ñoom te sama sama mag boobu noonu moo gën a maanaam kookoo gën a pacifique ci na ma xam ne kon fi mu ne nii yëf yi toll na fa nga xam ne looloo fi des quoi xamul fi des man mii sama bopp ma jiji ba fi mu toll nii sama numéro sama numéro sama whatsapp dama ko dama ko tëj sama whatsapp bi waa Sénégal xam dama ko tëj tabaski bii nii dama dama daan jël tabaski ba tabaski mënoon naa yëkkati benn 3000 dollars séddale ko samay mbokk Sénégal fi ma fi ma toll nii nii nii tabaski bii nii amul Sénégal ku may yónnee dërëm xaalis bu ma am dajale ko dinaa ko def ci xeex bii nii ngir jàmmarloo Macky Sall ah ñi mu àndal. te loolu maa maa maa ngi woo sama mbokk immigré yëpp ñi nekk Canada Montréal ñi nekk immigré yi nekk yëpp koppar bu ñu am nañ ko téye. teg ko ci xeex bii nii ñu ñu jàmmaloo Macky Sall bu fekkee ne Macky Sall dafa jënd sept millions xaw ma ci ay euh, yi ñuy def ci ngànnaay xaw ma munition bu fekkee ne dafa jënd xoolal sénégalais yi ñu dajale ay nañu nañu dajale xaalis bi ñu yónnee Sénégal yooyu ñuy nañ ko dajale jënd ko ay fetal jox ko yi ñu taxaw jàmmaarloo Macky Sall ndax fi mu ne nii xam nga lu des xare dañu war a xare dama bëgg mu leer jaajëf jaajëf ayca ayca ayca whatsapp whatsapp woote leen whatsapp whatsapp salaamaaleykum. waaleykum salaam. grand Guigui ñu ngi ziar rek. waaw ñu ngi delloo ziar. ay grand wax ji daal ñu ngi bëri. ñu toll nii moom xam nañ ne fi def mooy dañuy xeex wala ñu doon ay jàmm. waaw te Sénégalais nag gars dañu bëgg yomb ku ne ngi toog di wax sama genre yi ku ne ngi wax wax rek sëriñ Seck yëpp wax nañ gars dañoo wax wax ba sonn gars dañu xeex Ousmane Sonko li war a def yëpp def na ko. waaw yéen a gars yi kon gars may dégg waaw ñu ngi lay ma ne li fi des mooy xeex quoi xeex rek. da Ousmane Sonko moom jaanam wàcc na quoi bu ñu gën a gore. te Sénégalais nag dañoo bëgg lu yomb quoi ku nekk toog sa ku naan waa xeex dafa nga xeex xeexal ba xeex bi. kenn bëggut a dee. te fu fu moom ñu dee grand gi il faut moom ñu dee wallahi loolu ku la ko wax dëgg te sëriñ si waaw nag affaire sëriñ moom gars yi bi yow lañ léegi quoi ndax ma mi di wax yow man sama maam liggéey na sëriñ Touba waaw liggéey na ko ba wàcc bu seexaw ko mais àdduna sëriñ deful ab dëkk Touba lii ñuy wax ni ay yëfër lañ gëmuñu yàlla gëmuñu dara te ñëw seen dëkk dafa na sëriñ du defal dara gars yi nañu yow deux mille vingt trois lañ toll sëriñ fi liñ bëgg dafa yomb jabar ju baax xale bu mool waaw taalib bi sax dañuy nangu jabaram du defu ndànk ci biir kër sëriñ laa yoroo xam naa daw da nga gis sëriñ boo xam ne sax taalibe bi ci boppam da koy li koy liggéeyal dix mu yeewi ko mais taalibe boobu tey jii su war a gis sëñ bi wàllu Seck su ñëwee wàllu Seck moo njëkk dugg nañoo waxante dëgg ñu ne ay murid lañ xam nañ li fi nekk waaw kon gars yi nañu yeewu quoi affaire sëriñ yi yooyu daal mooy loolu ay sëñ am man grand daal lañ xeex quoi man daal wax ji loolu laa bëgg wax na gars yi ju xeex Ousmane Sonko li mu waroon def ñëpp def na ko kon na ñun ñoo ci des on est nag au dernier virage ah te virage bi grand suñu ko ratee mooy doon ay jaam la ñuy doon ba pare dictature dana am te gars yi bu ñu xamul ni dictature fi mu toll daal loolu laa bëggul ma wax maa ngi ziar jaajëf waay. jaajëf jaajëf ayca ayca ayca ayca whatsapp woote leen whatsapp woote leen whatsapp salaamaaleykum. allo. ñu ngi lay ziar. naka ma. ñu ngi lay dégg. alhamdulilah. yooyu si laaj yi pour wax yenn li nga xam ne ni moom la gars yi nekkee si réew mi mooy euh, lu mel ni juge bi donc bi nga xam ne dañ ko fay sept cent million ak kër pour mu taal Sénégal sept cent millions moo tax mu taal Sénégal sept cent millions ak kër moo tax mu ray ay doomu jàmbur mu taal Sénégal ba pare ñu wëlbateeku jël ko euh, bib jël ci ko yóbbu ko denc ko janj ko feneen ndax nekkatul këram xam nga loolu rek danger la te xalifa sa ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg xam nañ ko beneen bi mooy euh, babacar mbub moom nga tegoon sànq mhm. moom moo wax si làmminam ma dégg mu ne projet de loi bi ni affaire góor jigéen yi sëriñ si xalifa général yi moo tax jàllu ah ah, ah. affaire góor jigéen moo moo ko wax ma dégg ko man gone gi waxaat ko mu leer waxaat ko mu leer waxaat ko mu leer laa ilaha illallah may leen ma kii xaar leen xaar leen xaar leen xaar leen xaar leen bu kenn woo bu ma kenn woo kii dama koy jëliwaat ab bu kenn woote bu kenn woote may ma may leen ma may leen ma may leen ma bàjj bi dama koy woo direct ay waay ay waay di ba xaaral xaaral ay waay ana numéro ba ay waay ana numéro ba ci dama koy woo direct appel normal te Ababacar Mbuub day jaayu ruubi bëgg a jaay géej gi jaay yëpp te doo ci takk ku mës a gis li waaw dafa dagg dafa dagg allo waaw dama la woo direct parce que connexion bi du neex waaw du neex kay waaye xam nga xam nga Sénégal moom mooy loolu aja ñu ngi lay déglu waaw Sénégal mooy loolu ma ne waaw ma ne Babacar Mbour mii di wax waaw moom moom wax si làmbinam ne xalifa eh, généraux yii ñoo tax ñoo tax loi projet de loi bi jàllul répété waat ko ba mu ne répété waat mu ne gën ñii lépp léegi ñëpp am na autorisation pour wax si projet de pour wax si mais ñoom dañ leen tënk moo tax mënuñu see wax. te ngay seetli. dañ leen tënk moo tax mënuñu échange bi ñoom ñëwee see wax ndax menace yi leen di menacé moom moo ko wax. Ah! man xa man man xalifa général gis ma la ñu amal Sénégal lu dul lekk alalu alalu nit ñi lii moom moo ma ko wax lii ko wax. comme comme wax mbir mi nii la demee. mbir mu nii la demee gis nga dëmm dëmm li gars yi nekk fi war a baax lii Sénégalais yi ñoo war a baax lii am na yeneen yeneen yoo xam ne nit ñi xam nañ ko nit dañ koo xam man xam naa bu baax man maa ko yow yi xam la gis nga buñ dof dof la ba ñu wax ko fi mooy Sénégal lay tàkk. da ngay seet lii rek. Sénégal dana tàkk dañuy dof dof rek. ak mbirum kilifa ak mbirum kilifa diine ak mbirum kilifa diine yi laxasu si mbirum Adji Sarr boobu tamit xam nañ ko. ma xam nga xam nga fan yii passé nee naa ba vas y yeggali ñëwal ñëwal waaw ma ne ma ne fi benn lañ fi jàpp benn mbàkk mbàkk si affaire góor jigéen est-ce que dégg nga waa waa ànd sàmm def si benn communication est-ce que dégg nga loolu kañ la hmm? jiitu naa dem def war war na def war na def ay ay ay huit mois neuf mois ci ginnaaw waxaat lan benn lan dafa mel ni nàkk laa dégg bu benn maak maak bu ñu jàpp si affaire góor jigéen kenn def ci communication. <laughs> te ne te te bu ñu jàppee waale wala bu ñu jàpp benn waay bu sant neewee wala bu ñu jàpp benn bu ñu mooy temps bu ñu jàppee waa jooju ñoom si jumaa ji loolu fa passé même pas même pas deux mois quatre mois loolu am te kenn waxu si. kenn du si wax gis nga nit ñi nañ ñu baax bu ñu bu ñu waxloo nit ñi ñoo ngi gis nañ ñu baax gis nga ñun suñu réew mi ñoo koy defaral bëgguñu kenn defaral ñu ko nañ ñu bàyyi suñu ñu xool. wax ji lii iya, la. jaajëf gis nga yàlla ñu yàlla sàmm rek. xaaral nag mais dañoo xam. man nag jot na pour ñu jot na pour ñu man moom jot man moom jot na pour ñu libéré ma parce que dama leen wax benn wax rek. gis nga ñuy aalu. waaw xam nga lan laa leen wax. puub leen ci mbimbar yeeg jàkk yi. au lieu ñu kalaat ne yenn jàkk yi la waaye bu ñu dof dofloo ba ma tudd ay tur. ay tur ay faramason ak ay góor jigéen ay tur bu ma ko tuddee dëkk bee dëpp ndeyam. nañ leen dem rek xam nga dañ may yeew réew mi toll foofu. Akhenaton mi ngeen naan faramason la moo tëj sama gémmiñ de mais ay photo laa leen di indil ak ay loos ñoo xam ne ñoom ñu ngi ca biir. <laughs> moytu leen ma xoolal gis nga arme yi nga doon wax ni gis nga arme yi nga doon wax ni am na ñoo xam ne ñoom leen de am na militaire yoo xam ne ñoom leen dencoon côté côté côté stade Lat Dior am na ay militaire yoo xam ne am ay boo yoo xam militaire ñu ngi leen formé stade Lat Dior am na boo yoo xam ne ñu ngi leen dencoon côté toolu Abdoulaye Wade fa lañ dencoon seen arme yeeg seen seen militaire seen yenn seen yenn gendarmerie fa lañ nekkoon nit ñi ñoo la fa doon romb duñ ko wax duñ ko dénoncé gis na état général bi dictateur bu mu nekk nii mooy li ma wax benn waay dafa ñëw jëkk jékki benn fuuranke la sama bokk fuuranke la mais dafa dafa dafa envoyé saago ñun ñëpp képp ko ànd ak Ousmane Sonko mu saago ñu waxul leer ma ne ko man sama saago dama metti parce que sa yow sa maam mu na bu ñu naan Cheikh Omar Fouta fii la fi jàpp ay pël ay julli xakkan pël mooy pëlu machine yi jàpp leen ray leen ñu dara daroon daroon jihaat te fii mi baax na daal baax na daal eh, so waa ji def na baax na baax na daal nan leen dem rek nan leen dem rek man moom xam naa ku ma ci moytuwul ku ma fi moytuwul ba ma ba jéngu fi bu ma waxee rek seen maam yi ñëw allo li ma yor na de. yoroon waaw Jiji waaw. Thiam moom ci ci commentaire yi ci faux compte affaire yi la kattal ndayam génne ko ci biti bu ñu paree Dakar ndayoog Macky Sall ak Farba Ngom ma koy fay kattal ndayu Thiam Babel nga bloqué ko. ana mu fu mu nekk. ci commentaire yi la nekk. Thiam Babel damay tabala sa tuunu ndaya damay tibiri bi ah bëgg jël la laay def de. Thiam Babel génnal. ci faux compte affaire yi la bloqué ndayam. génnal. fu mu ne TikTok wala. YouTube wala fan Macky Sall ma koy fay ñu ubbi seen lëfal nday ci commentaire yi la ne Facebook. Facebook wala ndayam. Thiam génnal. Ah. waaw ok merci. damay tël mbay gay tël dubale taxal sa nelu yaay sombi de Thiam la war nag bu ma la waree ba épingle la fii allo. waa champion bi. waaw ñu ngi ziar. lépp taw feex. fii kay dara taw feexul dara taw feexul. taw daal moom fii moom bu fii moom moom bu tawee déglu ma fii bu tawee inondé lay def boo bëggee ma indi la Touba. dëgg ci sa waay day jéem a dugg ci ay affaire général lay jéem a tudd. Mhm. Matar loolu lay jéem a tudd international day katt ndeyam gis nga moom xoolal gis nga moom xoolal gars yi jënd nañ wax ku leer am nañ ay bagage ci moom te ci ci kawam xam nga fan yi génn na ñu wax nga ko waaw mu que du wax ci affaire dàll yi parce que fan yee rek gënoon di wax nit ñi di wax mais yow moom bu fekkee loolu joogam la bu fekkee loolu joogam la est ce que war na basé ci loolu dafa yëg affaire dàll Wally Seck yi moom dindil sa casque bi di sa casque bi dindil sa casque bi dégg ñu li ngay wax. allo. waaw voilà voilà ñu ngi lay dégg. leer na waa leer na waxal la xam nga fan fan fan yële génn na fan yële Matar Gueye génn na naan affaire dal euh, Waly Seck yi gars yi dañ ko ci interpellé mais moom du ci wax parce que xam nga xam nga bee passé def ci waxoon après ñu koy moom loolu bu fekkee li ñuy xeex li ci jëm est-ce que war nañu war combat boobu war na mën a am te jël ko. mais jëlu ko xam lu tax ko parce que loolu dil la woon daal lu yi cest à période boobu coow li ni mu bëree woon pour divertir nit ñi affaire u CPI ak yooyu Marème Faye Sall ci jëmu boppam mooy dil ak Wally Seck moo ko def loolu pour population bi gars yi mën a wax ci affaire yooyu fay ci otof Matar génnul di ci dugg di wax gars dañ ko ne eh noppi xam nga lii ci kaw la jóge xam nga fi may waxee hmm. divertissement la woon ba pare ma yokkal la ci gis nga problème wu Kouthia bi Kouthia Kouthia problème bi ga audio yooyu gis nga jabaram jabaram bi mu amal problème dafa am benn xaritam boo xam ne xaritu Marième am nañu audio bu yàgg eh, dañ doon jéem a xaar ba mu ba ba tension am pour ñu génn affaire bi pour jéem a divertir bi jaaxle sax Kouthia parce que gis nga temps yii a mu génn def benn vidéo boo xam ne dafa xaw a contre nguur gi quoi. Mhm. boo seetloo temps yële Kouthia génn na def benn genre affaire boo xam ne arrangé neexul leen bi dañ ko génne comme chantage pour xeex ko mais ñoom am nañ affaire bi bu yàgg benn jaboot Sall moo amoon vidéo bi téye ko ko ci jabaram ñu génne ko pour xeex te xoolal. bas moom bas day sóob bas Abdou Xaadar gis nga yi ngay gis ni yëpp mooy génne moo ni di jox gars yi que dañ ko téye ci ay bagage ci ay détournement yu garaaw lañ ko téye sëñ bas Abdou Xaadar gis nga moom fu wala tey sax moo ko gën parce que gars yi dañoo am ci moom ay bagage yoo xam ne xam nga kuy woote sëriñ xam nga sëriñ bu naan yow sàcc nga loolu dafa garaaw moo tax yi ngay gis ni yëpp même ba ci ay ñam jàmm gis nga waa ji keroog mu génn di wax ci affaire sëriñ bi ñooñu ñëpp bas moo nooyal foofu li booy bi doon wax sànq dëgg la bas moo nooyal foofu ñoom ñoom ñëpp cest ko dire mu toll nii bu am doole la boo xamante ni ku ci sàccoon Macky Sall da lay sax moo pour nga mën a def job yoo xamante ni yéen jox nga war ko def te xoolal fan yii di dégg coow lu bari Marème fay Sall c'est-à-dire que yoroo laab yoroo laab bi ngay teg. fan yee am ñaari conteneur yo xamni dañ ay parfum de classe yu am doole parfum de classe yu cher ñaari conteneur 40 pieds yu waji door bu fu toll nii moom marem dañ ci am ay ciow est ce comprendre del xol di nga dégg ni wax joju am waaw da ko door mo marem fani dañu am ay ciow parce que da ko don laaj morning boy bi dóor morning waaw li man maa la ko wax du leer de tëdd Mm-hmm. champion. jaajëf waaw. bas bas moom bas moom li ma la ko moom gis nga feeñul de feeñul de parce que Abdou Khadir feeñul de mais gis nga yi ngay gis fan yëpp muy génn ay jamra est-ce que comprendre nga ak paa bi génnoon noonu di soog naan ñuy wax ci sëriñ yooyu yëpp bas moo fa jaar parce que fu toll nii Sonko toog ci réew mi dee sax ko ko gënal parce que xam na fi ko gaa yi téye te champion man de mo fi joge bop lay tek ci suuf di dox bir France ñu naan ba wa qu'est-ce qui le mané len le Sénégal est tourné non la koy jàppe duulal lit parce que yeen du ngeen la ilaha illa allo allo didi wow mo ñak nday fay la mo yow ay katal sa <laughs> xool xam nga taxaw na yu vidéo laa koy woo du jël mag ma jàkka day da way dañu ñu seen day bu baax yeen luy tegal seen day rek daa yomb fii lay toog rek taal sama écran rek taal kat seen day ku toogoon ci taatu jigéen di nga jóg ñëw ma ruux seen day seen yàlla yi laay laal rek ngeen toj seen cott nday ñëw parce que ñu ñàpp seen day ngeen fii rek nii laa koy jàppe rek duñu def photo mu daw rek nee nañ dañuy défendre ay sëriñ de kenn ku si nekk bi la sa yaay di jur ci taalibe yi défendre seen sëriñ yéen seen ñaari xuur yi seen yaay yi dafa foogoon dañu foogoon ay xuur la nekkate ay toll la ci nekk ay toll yéen nekkate amu leen koy yéen koo ci woo vidéo sax mu daw kenn daal laa ci am vidéo démb xool leen bakk kenn laa ci am vidéo démb calling calling calling calling kii de laa ci am vidéo démb kii laa ci am sens démb xool ko xool ko mu mel ni kama pneu camion xool ko xoola kanam xam nga kii ko xoolee rek xam ne kii yàpp nit lay dundee. xoolal bakkan xool ko kii de laa ci am démb. bu ma leen mu ne ma yow sunu sëriñ si ma ne ko seen yàlla yi naan sunu yàlla yi bul ne sunu sëriñ si naan sunu yàlla yi. calling calling calling allo allo oui allo allo oui Iji maa ngi lay nuyu. ñu bu baax. Iji maa ngi lay bu baax a baax Iji aw aw ma jot na pour euh, wax wax wax lu bëri quoi. ñu na Sénégalais xam ne ñi eh, xam ne diaspora bi Macky Sall Macky Sall moo ko ñetti yoon. Macky Sall dafa bëgg a taal réew mi yàgg na bëgg na taal réew mi ndax Macky Sall leeral la démb Sénégalais yi ci niveau national international comme moom day briguer troisième mandat mu neex Sénégalais mu naqar leen moom dina def troisième mandat mais jiji Macky Sall dama bëgg Sénégalais nañu jóg ñu taxaw mbokk dégg dégg ñu la baax voilà ma jox len ben secret nak bala may dem kep ko xamne ne sénégalais nga bëgg nga arme nek ci diaspora bi <coughs> solution la len di jox man pour mëna xé ak talibé dama dul dama len dulal calling calling. vidéo nervi yi laa jël yobbu ko gendarmerie yobbu ko ci autorité français yi. ne len dañoo jox nervi ay passeport diplomate pour kep ko tuddu sen sëriñ si ñu ñëw ray calling légui nak nan lay def pour mëna défendre. calling moo mën jox autorisation. calling. calling loolu ngeen di wax rek. taalibe bu wax fii rek tudde ko nervi. calling. du fi du fi toog at. nervi rek jox Juan Branco. calling ku la fi jéem a fontoo lappi lappi. fexeel ba am fotoom. dem préfecture ba mu dëkk ba mu la ne moom la dëkk. fii boo toogee internet di wër. di woote préfecture yi moom mën naa jël zoom lëmm di woote préfecture yi rek. calling France gi ba France wër. calling këng këng këng. naa am sa tur rek. calling sa numéro téléphone. ma dem ci opérateur. calling man daal na fexe ba xam ci nga dëkk rek ma jox ko xool. calling calling. jaar. calling ko sax nag. calling ak sama tànk xool ban sëriñ dimbali leen comme doomu raam yi da nga am ay yàlla yoo xam ne. calling jamais ngeen ne la. calling yaa seex baaba Lamine Diassé rek mu ñëw. calling. li waa ja di daanu di daanu ci premier jóge première étage di daanu ñëw ba toll ak estafetage troisième étage njàng. njaago bi capté mu ne ko yaa seexu naa mu ne ko ah da waay yaa njaago ba waaw yaa njaago ma nokk ci suuf nga yegg ci suuf nga wal na yaa sëriñ allo allo asalaamaaleykum ma ne liggéey bi rafet na bu ma duggaatee ci koñ bi dinaa la defal mandat incha allah aca aca ñëw mandat bi gars di wër ñoom xam nga mandat keesu dëkk bi la ñuy wër ñun nag mandat boo xam ne ñoo ko liggéey ak sunu front la ñuy yëkkati joxe. ci xeex te billaahi wallaahi wa taalaahi maa la wax dina gañe xeex bi parce que yàlla ñun la àndal. ay fen du béjjaaw. te dëkk bi dafa bëri naa fekk trop trop trop keroog maa ngi gis Moustapha Diop taxaw toog ci kanam Mountakha nag naan ni ah Mountakha Moustapha Diop wol ko de Mountakha waaw gis nga yow bu la xoolee nii rek problème yëpp rek lew lu tax mu jox la cinq million nga jël lu tax indiwul signalu Walfadjri bi bi ngeen di daw nii yëpp nan la la xoolee mais xam nga yéen yéen fekk du ngeen ay yéenay nax sénégalais yi yéen ñi toog war wax dëkk yéenay nax sénégalais yi kii di Lamine Niass loolu Walf ay sër nekk paate dafa daan taxaw wax leen dëkk même bu ñu nekkee ay waajuram fii amatul dara ñun suñuy waajur sax da leen di wax dëgg man maa njëkk wax sama waajur billaa yéen a tax dëkk bi torox parce que ba ngeen waree jug xeex da ngeen toog ku nekk naan sa bopp sa bopp tal sa fan lii moo indi fii réew mi kon bu ñu waxantewul dëgg réew mi du baax gi lu bëri relaté nañ ko fii ci laaj yàgg na waxoon naa fii ne gars yi moytu leen seen daara yi ngeen di yóbbu seen doom yi di sànni parce que ñu ngi dajji seen buni waxuma daara du daara yëpp nag Sénégal moo bëri nit ñu bon ñu baax ñi bariwut ñu baax ñi ñëpp da leen di éliminer par benn benn pour ñu bon yi placé li tax ñu éliminé ñoom ay euh, imam ndaw ak yooyu yëpp loolu la processus bi la système bi moo leen éliminé comme nu mu éliminé nit ñu baax ñi fi nekkoon seen baay yi ñuy sëriñ si seen baay yi ñoo éliminé ñoom Momadou Dia ñoom Cheikh ak bugguñu ku baax ku bon la ñuy wër ba pare ne la ñoom seen maam héros la mel ni dafa daje fii dara tubaab ba mu ñëwee ñëpp la ñax seen ndey amul ku mu bàyyi tey la ñu ñoo taxaw ñu génération bii jàkkaarloog tubaab yi lu demoon démb kenn gañewul dara dañ waxante dëgg wax dëgg dëgg réew mi xale yi xam histoire maam yëpp lañ jàpp yeew ba ne code yóbbu sànni tëj ay 37 ans ay 38 ans bàyyiwaat ngeen naan seen maam a gañe xeex lan la ko gañee arrêté te nañu dem nañu jug taluñu tabax yi nañu dem xeexi man xar bi nu ma naroon jox sama waa kër xar ci xeex bi laa koy def barki yàlla wasalaam ji jaajëf ah te xam nga li ma neex xam nga li ma neex ci taalibe Aminata Aminata nee na yàlla tere xaj bu bon bi yow Aminata sa bay saya la sa yaay la Amina Aminata Aminata sa bay saya la sa yaay xaj la jurub xaj ba para ngeen top ab serignu xaj yeen lol mooy sen problème dañuy ñu sen day fu ngeen dugg ñu bloquer sen day tegal sen day bloquer len parce que sen rab jinne yi nek yarami. yaram yi jiji mënta taal ta new len jaxet internet bi mo teng sen maam yi jinne yi doon melal ci sen bir ak dereet internet bee ko téye bu ñu kattee seen ndey nag ngeen wuy sama day saaga na sëñ bi rëy yéen la ñuy njëkk a seen ndey ba pare bala ñuy jàll sëñ bi moom la ñuy échauffé laa guñ ko te njëriñ ji mu war a leen bi mu leen waroon a amal xam nga mooy lan yor kursa rek toog ku tudd sëñ bi rek mu ne la waaye noppi leen rek dootu leen ko déggati sa day yàlla gémmiñ ngay muum wala làmmiñ day wadd wala day dee safar loolu gën a yomb li ngeen def nii calling wuy leen calling gone yéen laay wax yéen da ngeen ay nit delloo leen seen bopp ci yàlla. calling wala ngeen wala ngeen jéem a gëmi ngelaw li. ngelaw sax boo ko gëmee ñu mën a wax. calling ndax bu ñëwee daaneel ba nag waaye sëriñ. yëkkatiwul birig. calling mënul baas. calling lalu baas ak mënuñu ko ñoom daal boof rek. calling boof rek ëmb ay nen yoo xam ne kenn xamul ndax betteex la wala du mës a tos tam. calling ngeen bëgg a rey nit ñi. calling waaye yéen nefe. calling calling calling calling. allo. allo allo. ñu ngi ziar. waaw ak muñ. mer mer gi màggal ak ziar bu bëree bëri waay màggal ak ziar lu bëree bëri. ñu ngi lay doole ñaax suñu mbokk sénégalais rek doole ñaax suñu mbokk sénégalais Macky Sall waxam yi dégg ñu koy wax yëpp daf ñoo bëgg a yóbbu ci beneen côté bi la rek. mais Macky Sall ma leen di xamal ne Macky Sall góor jigéen bu bon a bon a bon góor jigéen yi ko fi comme ni nga ko waxee rek moo ko fi indi Macky mooy bàyyi góor jigéen yi Sénégal Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des homosexuels. défense des droits des homosexuels au Sénégal aurait pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le Sans aucune difficulté. ça, je ne sais pas ils des difficultés pas. avec le gouvernement, c'est sûr. Il y a a un il y a un un te képp kuy dalal góor jigéen góor jigéen nga képp kuy nëbbal góor jigéen góor jigéen képp kuy euh, suturaal góor jigéen góor jigéen nga yéen ngeen ne mu ngi rek dañu topp sëriñ si nga te tekkum saram ndayam ah yéen li lay wurusul kañ ngeen du ubbi nday seen xel yi changé nekk ay nit yen sénégalais yi kañ ngeen nekk ay nit li lay wuru suuli ñu jóg defar suñu sénégal bi di xam ñoo gën a dellu ginnaaw mais xool leen Rwanda ba fi géeru utoog tut si jóge bañ ne Rwanda dootul baaxati tey waajaa ngi ne defar Rwanda ba mu ne cocc Gambie gii sax moo tane Sénégal ñun Sénégal kañ la ñuy booloo doon benn li lay wóor suulu jug taxaw xeex lii mu jóge fii Macky Sall toog toogam ba mu jeex takk ni day toogaat ah Sénégal lu ñu mayul Abdoulaye Wade mayuñu ko juuf Diouf mayuñu ko Senghor waruñu ko may doomu xaram ji nga xam ni góor jigéen la tekkiwul dara Sénégal yeewi leen buum biñ leen takk. xoolee bi takku leen buum kenn takku leen buum si moo leen takk buum kañ ngeen di nangoo tekki buum bii sëriñ si takk leen. barki démb lañ fi jàpp Serigne Godien jàpp Serigne buy violé vingt cinq xale ni ko koy nëbbal mais yéen tey bu ñu leen ne war a duma si ci penc bi lañ leen di yóbbu dumaa leen te bu dee seen njaboot ñu jël leen làq leen yéen Sénégalais kañ ngeen di jugli lay wursuli yeewu doon benn ñu jëlee fi Macky sàll mii nga xam ne moo ñu teree dem man mii di wax yéen làq naa samay quarante jëm kaw daw génn àll bi sama jabar mënuma ci moom dara yeen ñi nekk foofu gasaalika yéen a ngi bu jaay seen i jabar mënu leen seen jabar dara mënu leen ndax ndax ku eh, ndax boo booy xalaat dépense suba doo doo mën a def dara jàmbaar kañ ngeen di jóg doon benn ñu jële fi kii kii tawuñu kii mënuñu kii moom ndax fii mu nekk tey ginnaaw yàlla yonte ñun ñoo ko fa tegoon mbir mi nag du ay carte moo ko fiy jëlee gis kii jóg wàcc ñàppante ay ndey moo ko fiy jëlee ma leen di wax yéen sénégalais li lay war a suul nañ leen doon benn jëlee fi Macky Sall bu ñu melee bu ñu paree sax bu ñu bëggee nu ñu mel nu ñu meloon waaye kii nañ leen booloo doon benn gis nga américain yi tey loolee mën di wax loolee mën di wax ak tubaab yi tey loolee mën di wax loolee mën di wax dañuy jug xeex booloo doon benn xeex xeex ba mu jeex tàkk bu ñuy jóg di ñappantewaat ay ndey ñoom seen biir ñu def ko mais yéen Sénégalais kenn ngeen di jug doon benn ngir lay war a suul ñu jëlee fi Macky Sall yoo xam tekkiwul dara Macky Sall su dóorkat la fenkat la Macky Sall ba mu toogee 2012 ba léegi day duwul Sénégalais yi may wax dem mu toog a kosom bu rëy bi kosom bi nga man mën na ko sabadoor Macky Sall boo xool xam ne jeex na pression koy bëgg a rey lekkatul naanatul mu ngi wax sax di bëgg a daanu yéen ngeen taxaw ni tëpp mel ni yéen da ngeen ragal lan ngeen ragal dóor nañ ko fi 21 mars dóoraat ko fi mois de juin bi yoon dañuy tëral ndayam rendi ko te gis nga kilifa moom moo waxoon Cheikh Anta Diop ne Macky Sall mujjantal gu ñaaw lay dem te wallahi azim bu ñu jógee taxaw Macky Sall mujjantal gu ñaaw lay am tëral mu jëntal gu ñaaw tëral ren di Sénégal a président lu musul am Sénégal dinañ ko fa gis mbaa ñu dàq ko fetal téegal ndeyam ci bopp bi te nag yàlla du wàcc xeexal kenn bu ñu jógulee rek yàlla suñu boom lii tegu suñu kaw duñu ko mës a teggin. Eh, Thiam Babel dafa lañu lépp Thiam Babel Thiam Babel Thiam Babel dibiri bi naa sa dayu ndey bloqué naa la Thiam Babel jàpp naa la. waaw yàlla suñu boom lépp defal lañu ko kon ak sénégalais yi may dool deel waxaat man ak samay morom ak samay rakk gën jóg taxaw xeex ndax li ñoo ko fi jële du paa yu xubbi daas yi ak seen sëriñ su xubbi daas yi ñoo ñu ko fi jëlee ndax ñoom dara ñoru leen lu dul pooj ak dix mille pooj ak ay milliards sax laay bëgg wax moo leen ñor waaw seen soxna saa ngi nii bañ nañ ko ba léegi dañuy def ay greffage greffage coq pour mën di bégal paa yi nga xam seen mënatuñ da jow nday mënatuñ ko yéen na kon kañ ngeen di jóg am seen fulla ak seen i fayda yéen jeunesse su 40 ans yi jeunesse bi nga xamante 30 ans 35 ans 25 ans billahi wallahi yërëm naa leen. ndax mënul leen seen bopp dara kon nag kañ ngeen di jug taxaw jële fi lii mu jeex fi takk bu ñu yaakaar kenn jëleel ñu ko fi ñu ñu ko fi mën a jëlee suñu bopp yàlla suñu borom gunge ñu te buñ ko buñ ko bëggee tey mu jeex mu jeex amul ba benn révolution boo xamante ni ay bakkan tuuruñ fa France gii ba ay ay maamam dañoo dee jaay jaay seen i bakkan ngir seen sët tay mën a neex Amérique gazalika beneen réew gazalika ragal gi nekk ci ñun nañ ko te sax gaa ragaluñu ragaluñu ndax kenn ku nekk day am looy looy seet waaye nag loolu moo fi jeex waaw loolu moo fi jeex ma ne nañ jug booloo Ousmane Sonko la bu mu ñu gën doon góor gàcceem ngalaama moom. jaajëf jaajëf gàcceem ngalaama moom Ousmane Sonko waaw. jaajëf gars yi ku dugg rek nga def deux minutes ñëpp a bëgg a woote xoolal. xam nga li metti ci gaay duma xamé sax kam alaykum allo way allo Jiji mang ci live bi wa ya ngi ci live waxtana la gaay ma ñew ñëw euh, dama bëggon participer ci ñu ngi lay déglu wa man fan yi dama seetlu né gaay yi diw nañ la bër bi dé xam nga yàgg naa la wax sa waxtaan am na solo day def effet te tey lii wane na ko gis naa ne gars yi ñi ngi lay sànni ay xeer di jël sa ay photo di taf ay ñeneen ak ñeneen mais fi nga jàpp foofu la affaire yi moom mi ngi def effet macha allah beneen bi mooy damay euh, euh, wax si wàllu ñi nga xamante ni mën naa ne à chaque fois moom la ñuy répété di répété waat muy euh, sëriñ yi. man duma leen woy kilifa diine ndax lislaam amul diine kilifa diine ku dul suñu borom moom moom moom diineem ñooñu waxoon naa ko fi sa benn live dañoo def seen choix ba pare te li xew ni yëpp biir Sénégal ku ci jàngul wala ku ci amul loo ci jàngat dootoo dootoo amati looy jàngat parce que Euh, déjà yàlla daf ko jaarale si benn jëmm muy Ousmane Sonko xam nga suñu suñu borom message am daf koy jël di ko di jàllale ci ay ñi am xel nag rek ñooy ñooy gis message te Ousmane Sonko message la bu yegg si si biir Sénégal ndax image yu bari ci ay doomu aadama seen xar kanam seen ay melokaan yàlla mi ngi koy jël di ko wane fen bi fa lalu woon gëlëmal nit ñi di dugg ci guuta di dugg ci yenn yi di wax yenn wax yi ñu ci bëri ñu ngi yeew xaaj bi yëpp léegi seen bopp yi ubbeeku na te ñi wax noonu di leen di leen sànni ay xeer ay akaneton ak ay ñeneen ak ñeneen yéen ñi nga xam ne yéen yéen nekk si combat bi ñoom xam nañ yéen li ngeen nekk di liggéey ñoom ñoo leen ko gën a xam parce que fi mu nekk nii nit yi comme yeewu nañ depuis quand la la la xaalis boo xamante ni xaalisu sàcc la su drogue la xaalisu caga la xaalis bu lewul la di ñëw ci nitu yàlla nitu yàlla bi mën a téye xaalis bi nitu yàlla dëgg gis nga nit waxuma la xaalis mais bu bu jëmm ci moom yàlla daf koy xamal li nit ki li maanaam jëmm jooju li nekk ci moom nitu yàlla noonu lay mel mais ñi fa nekk du ay question dañ leen di manque de respect parce que suñ ko man dama koy xool ci anamu ay mat na la maam wala mat na la papa du genre du du du façon boobu mais dëgg dafa nekk loo xam ne

soo waxee kii paa bi dafay fen ñu ne bul wax loolu wala ñu ne dafay kàcc mais fen lañ xam moo moo boobu wax waxu waxu olof la waxu sénégalais la donc nañu bàyyi loolu ak seen hypocrite bi ñu nekkee ñi fa nekk du ñu ay sëriñ duñu ay nitu yàlla c'est des gens simples ñi fa nekkoon sëriñ yooyu gis nga ñoom gàcce bi lañ gisoon moo tax ñu ñëpp dee nañ ñoom ñëpp dem nañ seen yoon ah. ñooñu xamoon nañ ne am na gàcce buy ñëw te gàcce boobu duñ ko maam Cheikh am na si benn waxtaanam bu mu defoon course ba waxoon na ne moom année boobu du ko fi fekk te loolu dem na yoonam amaana yi yëpp gisoon na ko ak ñeneen ak ñeneen ah donc xam ne ñooñu fa toog dara yàlla nekkul ci ñoom beneen bi mooy maam borom Touba ndeysaan maa ngi comprendre lan moo tax sëñ Touba sonnoon ci biir Sénégal. ay Omar Fouti mu sonn si biir Sénégal ñu bëri nitu yàlla yi soo xoolee ñoom seen jaar-jaar ci biir Sénégal dafa métti dafa tar te côté surtout côté sañ Touba sëñ Touba dañuy faral di wax ni tubaab bi daf ko daf ko daf ko sonal tubaab bi daf ko yóbbu c'est pas vrai benn tubaab sonalul sëñ Touba nit ñu ñoon ñi ñoo dem jaay sañ Touba tubaab bi tubaab bi xëyul xëy rek jël suñ Tuubaa rek noonu am ci moom accès déedéet ay nit ñu ñuul ñoo ko def te ñun nit ñu ñuul ñooñu seen sët yi ñoo nekk biir Sénégal di fa def lii ñu fay def nii traître yëpp a ngi feeñ ñooñu seen maam yi ñoom ay traître lañu woon dañ doon jël suñu yeneen maam yi di jaay seen sët ñoo fa nekk nii ah, instant bi seen sët yi ñoo fa nekk euh, homosexuel yi seen sët yi ñoo fa nekk gris seen sët yi ñoo fa nekk di jaay seen ngor yi seen sët yi ñoo ñoom fa nekk bëri ñun am nattu gisoo ñoom li leen dal yëpp ay nit ñu ñuul ñoo leen ko def tubaab yi jaara jaarale ci occasionné aussi dañu xam te dëgg du fetam nit ngay gis ko xam ne bëggul yonent bi salaahu salaam yéefar la yoxut la mu di ko mu di ko dëgëral nañ waxante dëgg te gis nga say noon ci say famille lay njëkke avant ñeneen ñi di ci di di di ñëw ci say ci say wewu tànk lay commencé moom moo la gën a xam ne kii gëmul yàlla gëmul yonent bi bëggul yonent bi léegi aku ku bañ yonent bi lan ngay def ak moom kooku néew yang dox la bu bañ yonent bi léegi yow nga di ko jàppale jël sa àdduna bi ne lépp fi nga ko bëgg après yow safara bi moo la gënal boo dee nga dem safara ñun kenn mënul mënul waxa waxa ba ñu topp seen ginnaaw ak di yàlla la ñuy topp yonent bi ak ay naka ngay sa papa seen kër ngay nelaw ak moom di yeew ak moom nga di ko fa bàyyi naan dangay dem ci sëriñ diw pour wut fa barke loolu du naa fekk yow koy barke bi ci sa papa nga koy amee di nga ngay gisee àjjana bi nekk ci sa tànku yaay yi nga wacc ko fa nem ne dangay dem ci ah, xamu na leen leen woowee ñu jigéen ñi pour mu wut fa barke te yow àjjana bi nekk fii sa tànku yaay xanaa loolu mooy hypocrite ah hypocrite bi ngeen nekk ngeen ne bi ngeen ci tegg seen tànk safara moo leen gënal àjjana def ngeen seen soir nekk leen ci li ngeen nekk rek jiji bàyyi leen ko tout tranquille daa nekk jiji si boppam yàllaa ko yónni Akhenaton yàllaa ko yónni ñoom buñ bu leen neexoon mel ni ñun mais du seen coobare yàllaa leen tànn ñii wax yëpp si yéen ñoonu xam ah, nañ leen liggéey ak liggéey di defar ci doomu aadama yi bu avancé leen on avance loolu laa moon lu ma doon wax xàppati rek avancé aca Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des, associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne. Ils sont libres. sans aucune difficulté. Je ne sais pas si nous avons des difficultés ou pas. Avec le gouvernement, c'est sûr. Parce que Je ne sais pas de difficultés. kii nga xam nga lu may laajte. Euh, euh, nu mu tudd borom Jamra. waaw rey nañ fi ay xale. dañ fi rey ay xale Sénégal. mu gis ñuy tiré Fatel. léegi moom boroom Jamra lu tax muy dem di di masawu euh, nu mu tuddati Kouthia léegi doomu jàmbur yu ñu rey seen ndey yi anañu ana. sénégalais yi xiif di torox biir Sénégal yooyu waxu ci de moom pourquoi lu tax daal waxi ñàkk fayda dara ci loolu lay wax moom ay ma nga ca góor jigéen ya moom gis na ne depuis ñaari at ñi ngi rey ay nit boobu ba tey waxu ci ñaari at ñi ngi rey ay xale sax xale rey nañ ba rey xale bu am huit ans léegi man dama koy posé question moom naka la def gis yooy yëpp te nee na ci diina lay dox te waxu ci maa ngi wàcc loolu rek laa doon laajte gi jërëjëf. Jamra dayu lëng. yalla ñi laaj mam Adama gay sam ngam yi mu màbb yi mel ni de Berlin nga ko amul profil du ma la jël allo ayu lang yalla ñi laaj allo way yi ñu nga def jaaxle rek ah ci mu gi ni kay ñun ñepp a waye damay damay damay laajte rek est-ce que sénégalais yi déglu nañ Juan Branco bu baaxa baaxa baax hmm en tout cas ñu ngi koy siwol ndax ndax wan Branco li mu wax yëpp am na solo preuve yëpp indi na ko teg. ah. waaye bi bi daaneel. Uh-huh. bi muy daaneel dafa wax lu am solo. te loolu ñun sénégalais ñun ñoo ko moom. dafa ni le devenir du Sénégal appartient au appartient au sénégalais. Uh-huh. et sénégalais fi mu nekk Sénégal li ko waral a libéré fi mu nekk nii si ñun sénégalais la dépendre. <coughs> sénégalais yi dañu bëgg di délégué xeex pap Alé Niang wax na ko ba sonn sénégalais yi dañu bëgg di délégué xeex li ñu wara a xeex duñ ko xeex mu dañ koy jël tek ko ci ndoddu keneen loolu mo mo loolu moo waral ñen ñi di sétane Ousmane Sonko mo waral ñen ñi bu ñu amee problème au lieu que ñu jóg xeex ko duñ ko xeex mais pap Alé Niang la ñuy jóg di ko woo sonal ci téléphone waxal ci li waxal ci li waxal ci li ñun sénégalais jikko na fekk boobu ak tàppet boobu la ñu war a génnee si ñun loolu jëmewul Sénégal dedu jëmewul Sénégal fenn dedu defar Sénégal li jëm ci wàllum sëriñ yi nag dafa bëri ay imbécile te sénégal yi man fi mu nekk nii Facebook gaay dañ may saaga saaga bu ne lañ may saaga loo wax ci sëriñ ñu saaga leen ñu saaga la mais ñàkk ñàkk xam dama am benn vidéo bu ma mësoon déglu waa ji waa ji ci ñaseen yi la bokk nee moom da daan da wër Sénégal di dem ay conférence da daan dem ay Casamance ak yëpp mais nee na am na benn benn benn benn sëriñ ci ci waa Ñaseen moo ko woo ba mu ñëw mu ne ko yow de yaa ngi yaa ngi yaa ngi wër di yee suñu suñu bëy am na wax jooju am na wax jooju moo lay wan ni rek gaa yi taalibe yi leen fen yaa ngi yaa ngi yee suñu bëy waaw su mu nekk nii bëy lañ leen jàppee di leen nax ñuy ñëw di leen jox addiye waa ñuy rat rek sénégalais yi dañu yeewu sénégalais yi dañu yeewu jamono ji fu mu nekk nii jamono yeewu la waaw bu ñu yeewul dina met si ñun de te sonko ousmane sonko mi buñ ko seetaanee mooy suñu dee kooku moom moom moom dafa dafa leer waa ji wax dernière chance mooy suñu dernière chance waaw ku ko xam ak ku ko ña ku ko xamul mooy suñu dernier chance jërëjëf. jaajëf. allo. allo. nuyu ziar. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. way waa ji maa ngi lay ziar. maa ngi delloo fan. di ziar gaa yëpp di leen jaajëfal. ñu ngi lay delloo ziar. fi waa ji rek laay rebondir rek quoi waa ji génn léegi. Mhm. xam nga ñun Sénégal dañuy. Nek ci ben affaire bam yag ñuy jéem nelaw nelaw lu di nelawal sun xel yi quoi gis nga nit bo nekkee ci ben affaire dang ci am détermination ba jeex ci tak gis nga combat bi ba ci Juan Brango dugalé loxom ba légui da melni sénégalais yi dañoo bëgg ñom jël waat jël responsabilité bi yëpp yeen ko Juan Juan dafa am fu ñuy sotale man bu mu la fekkon ngay xex tay mu leer mané dor sénégalais nga comme man malay sotal suma ñëwé door doorat ñem damay bank sama loxo taxaw gis nga combat bi lepp ba ci xawaan duggee ba léegi gars yi koo xëy gis programme am yëpp xawaan la kenn programme dul nuñ mën a eggalee lii te ñun yoo toll foo xam ne jaratul ñuy xaar ndimbal wala yaakaar mataat gay waxal wala sëñ diw waxal ay at mu mënuñ ko topp sëriñ si pour ñu wax waxuñ ñooñu nañ leen écarté ñoom am nañ fulla ña nga ca lañ nekk ña ngay dund seen àjjana ñu ngi dundu li leen neex ñun ñu nekk ci musiba nag lekkuñ naanuñ wuñ di torox ñun ñoo war a jël suñ responsabilité bopp mais du toog chaque jour naan diw waxul diw waxul affaire bi daa dépassé ci diw waxul diw waxul jëf moo ci des affaire bi desatul lenn lu dul jëf. mënuñoo toog boobu ba léegi ñu barricade kër Ousmane Sonko li ñuy def xale bu ndaw booy nàmp sax boo leen ko laajee ñu wax la pexe yi Macky Sall nar mooy lan. xam na ne Sénégal événement ak caaxaan moo leen di yóbbu Dakar bu tabaski jotee ñëpp ñibbi ñii buñ jógee ca tabaski ba ña nga ca tooleeg ñi war a xeex xeex bi. àll ba la ñuy ñibbi ndakaaru du duñ xeexal ndey Ousmane Sonko maître yootaa duñ ko ko xeexal ñoo fay des su boobaa boo bëringee bëri ko bëringee ko padduwaa dina bëringo ba jam ñaajo embouteillage du ko téye nit du ko tàrrel kon donc le vingt cinq bi bu SAP bu yeboo gaa yëpp dem tabaski ji bu SAP te Ousmane Sonko dindi wuñ barricade yi bu yeboo gaa yëpp tabaski ji te fàtte affaire u Pastef ak Pastef affaire u Sonko ku ne dellu ci la nga nekkoon loolu mooy dëgg buñ toogee ba tabaski ji yow Dakar après tabaski un mois bu la neexee foo sànni puso day bërëngu ba fa ko neex àgg fa kenn du fa nekk ku mën a xeex ak ñoom boobaa lañ naan coppet sonko yóbbu seen pexe yi ñu lal nii nag bu fekkee sénégalais yi ubbi wuñ ndey seen xel yi xam ko buñ tabaski jee ñu ne tangaañ Ousmane Sonko yóbbu ko daf ko liñ koy def wax ji jeex bu ko waa nag ku nekk lu golo xam boote doomam parce que mun leen toog yéen tamit jël seen temps boo liggéeyee ba wàcc wala dallu nelaw wala liggéey suba toog di wax ak ñoom ay juróomi at nanguwuñoo jëfe liñ leen wax len nii boo ci gis ma ngay xool numéro Europe bu mu woote di ñaan lu mu tabaskee dañuy duur rek duñ xeex dara le vingt bi bu fekkee jëluñ responsabilité yi ñu war a jël dëgg kat nday barricade yooyu Ousmane Sonko gën dem ñibbi këram Ziguinchor tabaski ji ba am nañ ngoru ñoom dem tabaski ji bàyyi ko fa xaaj bi yëpp di wax nii du ma tabaski ji dañuy tuul kuy tabaski ji jot ñu ngay naaw wuti dëkk ba bëgg daje ji ci keppaar yaa garab yi di tuul le vingt cinq bii bu leen rawee Macky Sall da ñi ay doomu xaj lañ ñii moom yom yomb nañoo lijjanti comme tabaski ji lañ nag nañ ne coppet Ousmane Sonko yóbbu ko fañ ko yóbbu ndakaaru fii ba un mois kenn ku fiy xeex di ñu sonal amul nañu waxante dëgg Dakar bu ne cinq millions personne fa ne quatre millions yi ñooy jóge ay Bawol ak Siin ak Saalum ak Kajoor te Casamance googu tamit bu leen Macky Sall jéem a nañ am seen bok bopp waruñ ko sax jooy nakat ndayam fële mook batom bato yooyu da koo luyee dem dikk yooyu da koo luyee ji nañ ndayam même bu ko fa indiwaatee nañ am fulaay buñ ci katt ndayam yéeg fan lañ daan yéeg di dem Dakar ci biir si lañ doon yéeg ak Njaga Njaay nañ ci dellu ñoom xam nañ souffrance àdduna dañ jëw nday bato boo xam ne dañ koo luye teg ko foofu nga war teel jël sa xaalis yow di ko fay i ci transporter say marchandise madd bi ñu doon yóbbu Dakar rek lépp nañ ko delloo ci camions yi bu ko fa indiwaatee ñu katt nday lépp fa am gouvernement bu bees buñ ko taxaw di ko jooy parce que buñ ko jooyee Macky Sall xolam day sedd oto boobu du da jëw ndayam dañ ko fi da leen fiy tuuxalaat rey leen ñoom ñëpp attan nañ leen cee yab ba mu fees kattaat ndayam ci biir géej gi te boobaa ñoom ñooy dee nañ yeewu kuñ fontoon nit ñi seen yooyu yëpp nañ ko gedd même buñ ko andiwaatee levée embargo bi tax nañ katt nday lépp gedd ko bato bu dawee fayit Macky Sall ñi ko luwee bato bi danañ doxaan ndayam bato bi Sénégal moomu ko de na leen leer ak Dakar dem dikk yooyu nañ dellu yéeg ci bis yi ñu doon yéeg ak njaganjaay yi ñu doon yéeg def seeni déplacement buñ ko sax yëgal seen bopp man loolu laa gis mais buñ toogee di ko jooy fa mu toog lay toog di ree naan ñëw ñuus naa seen ndey dugal naa benn coup buñ ko sax faale oto bi bis bu yàlla defee mu dellusiwaat fa bu ci continuer di ci yéeg danañ ko surchargé waat ba mu yóbbu lu mat quatre mille personnes ñu suuxal ndeyam ci digg géej gi te boobaay dañ naan li amoon batalo joolaa fi amaat rek wax lay mujjëwaat rek nañ focus ci lii nga xam ne mooy la vingt cinq bi buñ ko fayetee ba lever barrière yi Ousmane Sonko ñibbi si insoor dellu nekkaat ci mom toog Macky Sall li ko dese ci légitimité am ñëpp xam nañ ko du huit mois du six mois élection bu desee six mois amatu fi nday benn dogal loolu lay profité léegi tey légitimité am jeex parce que élection bu mu dese six mois Macky Sall tekkeetul lëfal ndeyam ci dëkk bi dootu fi joxe benn dogal loolu lay profité nag suñu toll nii gars naan Macky Sall sept mois la fi dese huit mois matatu ko bu dee un mois mois si lay yem légitimité am jeex si réew mi kon man may baye ligne bi gars yi dess des dugg. jaajeuf jaajeuf ok. do len ay patriote nga dakar sa ndey ñëw toog fii naan doo ay patriote Katal sa ndey ak sa mouray nga dem ray sa yaay mo gën nga tok fi nan do len ay patriote lo fi def. lo fi def lo fi def sa xottu yaayu yu waay ku ma sa gis li ku ma sa gis li yow nit ñi waxa wax ba nga baye li nga nekkon yep ñew tok fi temps bi ñuy laaj fi tok do len ay patriote. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax ba defuloo dara rek. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. yaa yaa may dégg wala déggoo ma. ñu ngi lay déglu de. ah yow de moom li ma lay njëkk a wax mooy yal na yàlla defal la jàmm li nga daj ci Sénégal yëpp bu yomal xiyaamee yal na yàlla fay la man yow lay yow yow lay ñëk ñaanal lolu manam yëkëti nga sa alal sonu nga ci wax nga basa yaram bi jeex na tak pour ñom ñu nekk ci jamm nit na boko ko jamm ta te xamul jàmm maanaam eh, nit dafa am ño ni xamuñ lan moy tiranga nit ko xamu tiranga nak mom ñi yëkëti fukki dërëm di la jox di la nax di yëkëti téeméer di la jox di la nax pour nga xam ni li nga xam moy sa avenir nga bañ ko xex ñi nga xam ño tudd ci ay milliards bëggu ñu xex am ki nga xamne dafa tudd ci ay milliards xex am yow mi yow mi amut ay milliards yow yaay fexe xex am nga mëna am ay milliards waaw waaye dal man mo mang lay gërëm di la sant di la ñaanal yalla wa sénégalais yépp képp ko xamne ni jullit nga ta bax nga war na lay ñaanal ndax lepp lo xamne ni manam satan la te europe fii ta jot amut jot amut ta amul ñun ñu fi ne xamnañ na jot amut ta amul nga jël sa yépp jox ko sénégalais yi yow mo waccio nga ak ñom wax nga lu dul jeex wax nga ko lepp lo warona def koy def ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñooñu ay xaj ñoo leen tene ci réew mi musiciens yi baaxuñ mbër yi baaxuñ ñoom ñëpp benn groupe faramason bi la rek ñoom ñëpp mburu foofu ko fëriñ mbër yeeg Youssou Ndour ak ñoom Wally Seck ak ñëpp ay doomu xaram leen ñoom Bibiane nag ku ca problème am biñ génne fan yëpp loolu pour divertir nit ñi la andi yóbbu nit ñi faneen ndaw ñi bàyyi leen seen xel ngeen fogos ngeen xam ne réew mi seen réew la yéen a ko mën a xeex da am defaral ko seen bopp nit ñi milliards yu ñi am kër yu rafet yu nit ñi am ngeen am ci man mi ma ngi nii man a yalla di mbeur nañu keneen ak keneen ñi nekk fi ñu ci tiranga yeen ñi nekk fofu di dund coono. jog leen ngeen xex xex bi la le 5 waaw xex leen xex bi la le 5 li jeex ngeen takali ko ak Macky Sall ak régime bi nga xam ne régime seytaane la. di ji ñu ngi lay ñaanal jërëjëf mu bayila ndax xamna naa ñeneen ñepp bëgg dugg yalla na yalla defal la jamm jaajëf jaajëf defal ni ko ñun ñëpp. jërëjëf wa leket gi wuy leen wa leket gi wuy leen da ngeen depp ci leket ñun ñu rëcc ci gi taxaw ci ka leket ga di leen wax ni dëkk bi doxé yeewu leen jog leen seen bopp taxaw leen wax ak seen bopp allo. allo. salaamaaleykum. allo. allo waaw. yaay boy na def. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi si émission Jiji. waaw yaa ci biir émission bi waaw. Euh, Jiji man c'est la première fois may woote ci ci émission yi. Mhm. gis nañ sa taxawaay ci sénégalais yi. nañ bu baax ni ngay taxawoo sénégalais yi. Mhm. mais sénégalais moo bëggul ku ko jàppale sénégalais bëggul jàmm bëggul salaam parce que ñun gis nga ñun ñu nekk fii ci Europe bi ñun ñu ngi tedd ñu ngi am lu ñu lekk am nañ lu ñu naan boo liggéeyee dañ lay fay boo liggéeyul ñu fay la soo fee baree faju soo amee problème ñu yërëm la defal fajal la sa problème mais sénégalais dafa gëm te gis nga affaire de sëriñ yi Sénégal rek la am amul beneen dëkk ci àddina Sénégal qu'est-ce que te là nous avons ñun ñoo gën a ci heure bi avancer parce que tet yaa au Sénégal jàngkat yaa au Sénégal borom daraja yaa ngi Sénégal ñoo xamante ne lu Sénégal. Nous mais tant que nous ngi ci affaire de on va pas avancer te yow Soy, sooy sëriñ ngay topp sooy dem si ziar tey boo ci amee paas reen boo amee paas nga ne bu yaa ngi dem ñaan ñaani ji foofu pour say aajo faju déwén da ngay ñaanaat pour dem paas yow loolu mënuloo loolu war na la yee mu wóor la ni yow li ngay def dara sottiwul sàcc yi rek ñoo fay dem di tedd sàcc yi kese ñoo fay dem di tedd buñ demee buñ ñëwee sàcc alalu réew mi ñu ne sama sëriñ ñaanal na ma am naa li ma bëgg pour yow loolu mooy ñaan fekk loolu yow ñaanaluñu la da nga sàcc alalu réew mi pour nekk ci suñ jógee ku ku ku sàcc nga dem jokk ci benn sëriñ ngeen bokk ko ngeen lekk ko sénégalais yi dañoo sonn tey sénégalais yi dañoo taay dañoo damm gis nga Ousmane Sonko ñun ñëpp ñu ngi daw ci ginnaaw Ousmane Sonko ñu ngi daw ci ginnaaw Ousmane Sonko mais billaahi damay ña damay ragal sax est-ce que Ousmane Sonko sax dina fekkee lii parce que dafa sonn dafa sonn dafa sonn te sonnul pour dara pour sénégalais yi moo tax muy sonn ñun sénégalais yi dañoo def lu nekk ñun ñu ngi gis na dañ ciy yónnee suñu xaalis dañ ciy def lu nekk pour ñit ñi nit ñi ñi nit ñi yeewu mais mënuñu fexe ba yeewu bu ñu waxee fan yi yëpp ñu ngi lay tax yow ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji te xamuñu ne ji ji li muy wax loolu mooy dëgg parce que bëgguñu bëgg sénégalais dañu bëgg sénégalais di nelaw dañu bëgg sénégalais di nelaw di nelaw nelawkat yi ñoom ñu ngi nelaw ba léegi ñoom nañ tëdd ñu nelaw bu yow ma xiyaam la ñuy yeewu ji yowmal xiyaam la ñuy yeewu yow sëriñ bi ngay topp faatixa sax bu leer munoo koo tari faatixa bu leer mu noo ko tari jàngalu la ko wanuloon ni ñuy ni ñuy jaamoo suñu borom moom ni ko jaamoo rek la la woon sénégalais yeewu leen sénégalais yeewu leen ñun danoo sonn ci yéen tout le temps dañuy daw bu manifestation amee fii ñu daw bàyyi suñu liggéey dem topp leen suñ ne yónnee leen xaalis ñu jël suñu xaalis yónnee ko lu ne ñu ngi koy daj ci yéen mais comme yéen a ngi nelaw ba tey continuer leen di nelaw ngeen baal ma àq nag Jiji mais tey bu ma duggul woon musuma dugg ci émission mais tey bu damay seetaan rek mais su ma duggul woon sama xol du seet fale ma wax lii pour mu génn ci man quoi. macha allah ngeen baal ma macha allah macha allah. gars yi mango laay lekk ak maa mënoon sàcc mango taw booy. <laughs> la ilaha illallah gauche laa amoon yoo xam ne jam mango rek laa mën ñoom kay fan yi moom sama effet effet effet laay def effet effet xam nga effet xaaral ma jël sama yaay. góor croix jigéen rentré. góor croix jigéen rentré wala góor 30 secondes jigéen xabaabal dama leen di ba pare. salaamaaleykum waaleykum salaam yaay booy. waaw maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp. màngo di am lu nu lu nu metti comme comme ñëpp. man nag li tax sax ma gën a dugg. Mhm. mooy dama seetlu lenn. sénégalais yi ñu topp de yeneen mhm. jël leen seen xel mi ngeen def ko ci seen avenir ak Ousmane mi nga xam ne jël na léppam jox ko Sénégal man li ma gëm mooy benn sénégalais warul génn Dakar naan da ngay dem di tabaski ji xanaa bala ngay tabaski ji da koy tal a toog di jël seen yàpp di ka lekk di seetaan Ousmane Sonko ku ko ci taxaw leen ngeen taxaw ko jàppale leen ko dimbali ko yiir ko ndax léppam jox ko Sénégal lii mooy li nga xam ne mooy li ma metti ma ne naa ko wax euh, xaw ma nan kooku sant buub la xaw ma lu tudd gis nga ñooñu da leen nit ñi teg fale gis nga man ba ma amee seetlu ci ñoom yàgg na ndax mënuma gëm nga tax sa réew am lu fa ne loo xam ne ñëpp dañ koy xeex Abdou Karim tëdd ca kaso bee Cheikh Omar Diagne tëdd ca kaso bee ñu di ko seetaan lii na ci nit ñi bàyyi xel fan yii nag mi ngi génn di dugg ko génn di mel ne yemb bu ko kenn ligganti jeunesse bi jóg leen talu leen tabaski talu leen tabaski ndax kat seen yaakaar tey moom la ñu jël teg ko bët mm-hmm. ah ñi ko songu danoo bari bu ngeen bëggee tëj tëj ndakaaru googu ba kenn du tabaski ji kenn du tala dem tabaski ji xam ngeen fan ngeen di jaar gis nga bii passé la ngeen defoon mi ngi fi ba tey te am na effet te am na so tant que Ousmane amul jàmm bu benn sénégalais am jàmm bu benn sénégalais am jàmm ndax tey ku déglu tey ci suba bi may déglu euh, chaîne kii bi ci suba mhm. li wax ni Macky Sall bu toogaatee ci réew mi bépp Sénégalais bu nekk bitim réew nga def ak nga ñàkk def sa tànk boo ko tegee ci aéroport dina ni la yóot ni ràpp ci kaso bi wala ñu dóor la bal kenn ku ci nekk bàyyi xel ci loolu loolu lu ko ci suñu nopp yaay yeeg suñu nopp papa yi ñoom ñëpp ñu jóg taxaw ak xale yi nanu jóg taxaw ndax gaañi daa nanu ba pare lii lay war a suuli jóg leen ngeen taxaw jàkkaarloo nguur gi mu abal ñu réew mi lii la ni woon naa dugg wax ko ndax xoolu ñepp jeex na yal na len suñu ak daal jere jeuf jere jeuf yaabi jere jeuf sénégalais dem Ousmane xefee sax ñu dag ci yapam bi lek ay doomé ram lañ allo. allo Jama. waaw. sama ma nekk yaa ngi si jàmm. mais aw ma kat ya ko tay ci ah. jam amu fi de. waaw néew ma. ma ne a amu fi. kii rek la loolu dëgg dëgg la nag neex rek xam nga ñun sénégalais yi moom mooy loolu may ma rek ma wax ak ñaari taalibe yi après nga xaw nga xaw waat tuuti man ma waxat ma waxat sëñ si gis nga Sénégal dañoo war a comprendre léegi ay ñun dañuy saaga taalibe yi dañuy saaga sëriñ seeg saaga wuñu sëriñ si da ngeen déglu ñu wax leen lu leer ñun ñi ñëpp ay taalibe lañu dañoo judd si taalibe maa si taalibe suñu bàyyi judd si dee si ñu dugg si oto Serigne nag mooy chauffeur oto bi nga xam ne def nañ bu ñu ko toppee dem si yoonu yàlla mu yab otom ne moom ab ab si tarixam la yor ñun yéeg si tarix ñu yéeg si bañ si yéegee muñ sa gàmmu daan jot ñuy di waxtaan ak ñun di ñuy yee mujj gi ñu ñuy lëndëmal nañu waxante dëgg bañ ñu commencé ne lëndëmal nag ñuy ñuy jéem a naan di laajte ñu ne bu kenn laajte ñu dem ba ci biir nag Serigne si daal di gaare otom ne yëpp yéeg ñun nag ñu ne léegi comme que yéen dematoo leen ñun dañuy wàcc oto bi dox. gis nga sëriñ da ngeen ñuy nangu déglu ñu wax ak yéen dañ leen toppee yoonu yàlla ngeen bëgg ñoo toppee si yoonu dañuy jàkkaalu ak yéen wax ak yéen ku si am sa sa sa sa baatin sa zaahir defal ñu gis Macky Sall laa ngi nii d'accord leen si troisième mandat xëcc leen seen course wàcce ko du yegg si troisième mandat su ngeen ko mënee bu ngeen ak ñoom ak moom ngeen wax ni ko moom ngeen àndal mu boole xorom Lac-Rose yëpp kat ko seen job ndey taxaw jàkkaarloo yéen gis nga fii da ngeen ñuy respecté ñu respecté leen respecté wu leen ñu fexe bu ñu yewoo ay jeunes lañu ñaan nañ yàlla lu mu néew néew dinañ dundaat cinquante ans yeeg cinquante ans yi seen sët yeeg yéen bu ngeen teewee ñëpp la ñuy boole di xorom seen job ndey parce que ñun dañuy dund dañuy dund force ah ci dëkk bi lañu bokk ñun waxuñu leen ngeen jóg xeex yéen seen tànk yi seen làmmiñ fu mun a yegg seen tànk yi mënu faa yegg ñu côté murid côté tidiane côté xaadir ku ci jóg dañ lay jàppoo parce que say tànk mënatul mais say kàddu mun naa dem léegi doo yóbbante say kàddu léegi nga ne yow doo yóbbante say kàddu te doo jóg léegi nag doo jóg ñun mun ay sën lañu dinañ jóg di daaxante yéen di teg seen job ndey matin midi soir buñ tasee yow ma xiyam man moom bu ma sëñ bu ma si mën tasee yow ma xiyam xaw safara laay dugg wala àjjana waaye dinaa yootu ndey su xuuri ba jot ko katt ndey su xuuri ba nga xam ni àjjana sax boo fa duggee si urul ay nii doo si parce que dafay day leer da ngeen ñuy nangu déglu ñu ànd dund di leen jox adiya garaawul ñu bi ñu dundee leen jox adiya garaawul waaye ngeen bañ ñoo tere dund ba pare bëgg di jot adiya yi mënut a nekk mënut a ne rek xale yi katti nga leen maire yi katti leen waaye dañ ngeen ne ñun nag du ñu katt du ñu katt du ñu dund ñun liggéey sax ñaan leen wute ñu fexe leen ñun ñu liggéey rek ngeen ne du ñu liggéey. suñu wàll si réew mi ngeen ne du ñu jël seen wàll si réew mi léegi nag lenn moo fi des di xëy di tag seen ndey di toj seen jobbu ndey seen bàmmeelu bàyyi ñu dem sulli ndeyam buddi ndey seen xuur bu ngeen yeggee yow ma xam du ngeen am doom du ngeen laal parce que alxuraanul bu ñu yeggee ma xam du ngeen laal man buntu yow ma àjjana dinaa fa taxaw seen bu ma si xàmme doo dugal xuur doo dugal xuur ah. man bañ naa ko ba damaa jël sama yërëm bii fii. fexe buñ ma dencé lamset même buñ ma soulé dama koy yobalé bu lay romb buntu àjjana nga yor yoral mani ciss ndey sa xuuri mu wat do dugul mom katt fi kat fi ba bari té ñoo dugul duñ ko nangu and ngeen ak maki bay leen ngeen and ak maki maki bu wàccee di ngeen wacc digi hmm. ñun ndaw yi tok fi Mark zuku mbeuk wañ nañu yoon bi yéen ngi non ku siy jog dañ lay jappo ñun waxuñu leen leen ngeen jóg di daw di daaxee wax leen lañ leen wax Macky ñaan mi léegi ñaan leen Macky Sall ñun ñu and ak yépp man bu ngeen ñaané Macky Sall taalib sëriñ bu mu bëgg man ma defal ko waaye kanta à loolu seen xuuli moom bu yeboo ngeen tax si de fer ndax ku ma romb naa cos ndeyam wa salaam allo ku mer ma wàcce la waaji ku mer rek ma wàcce la nga xaar baa de tous boy laa wax ma ne ku mer ma wàcce la ci mburum mbaam yi laay waxal ku mer ma wàcce la nga xaar baa de tous attention waaji waaji waa waa waa waa waaji dugg léegi waaji dugg léegi noonu neex na de non dégguma ko woon dama doon dama doon nelaw wóor mu ne ma ne nopp yi dégg lépp li mu wax dégg dégg nga ko dégguma ko bu ma dugal man maa ngi dee sama biir oto bi xoolal dama saway xoolal ne ne ko bu si bu bu na jël xërët man xërët laay bàyyee gars yi rek moyow baaraam bi ngay jàng moom moom kii aw ma lu ma ciy wax sax ni wax ngeen li ci li ci li ngeen ci war a wax yëpp wax ngeen ci wax ma dara nag bu ma kenn yóbbaale yu yor yaa di tax bu ma kenn dem di ma duulal temps yii dañuy duulal si àll bi donc man bu ma kenn duulali waaw ab ji ji ji pay balaa ñoo tàggoog ñun ñax du ma sax. barki rasulillah bu ñu defee li ñu a def rek. coow dootul am mais tant que defuñu lu ñu war a def. problème dina am mu ngi noonu. di man daal fii la tolloog ñoom. di lu siècle yi moom leen ñaanal nag yéen ñi nekk fi live bi yëpp parce que vraiment man yëguma sax ne dama doon liggéey maa ngi nii doog a pare nag mais billaahi wallaahi taalaay yëguma sax ne man mii maa ngi doon job quoi vraiment da ngeen di <laughs> non ji ba ma waay la. baal ma bàyyi la lu ma siy wax du sori damaa bañ ñu yóbbu ma kër yaamati tax dañ may duulali dañ may duulali te loolu laay bañ Kumaha pedalangan? kumaha pedalangan? Haram aku pada haram aku pada jadi. Kumaha bedalaman, kumaha dulal dalangan? durang lañu dah. Tay nak mom ma ngi def évé xwan branko. Tay man lañu Long fep, lonk len bu fekkee njugub yi lonk ci sama garabu dóobaale gii moo leen tiital ñoom daal njugub yi fu live bu ñu bari ñu jël ko toppe la mboora nag man sama njubu njugub yi baleen maag moom su ma xëyee li ci sama audio yii kenn xamul nu mu toll xam nga njugub garab gu tag moom day day rek Bar baa ngi ni ñu ngi ci mille tiktok ak ci mille deux cent xoolal quatre mille nangam bu ma xëyee damay baleeg buntu kër géegi yëpp fépp la ñuy daj <laughs> audio nag may lonke léegi maire yi gedd nag lonkee ko maire yi ku ci lonkee ko di nga xam sama maire yi sama nandi tey ku ci lonkee ko rek di nga xam salaamaaleykum waa guy waaw ah, ñu ngi jaar waa guy waaw ñu ngi jaar yaa ci live yaa ngi ci live bi wala waaw yaa ci de yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. mais kii daal man euh, dafa am lu ma bëgg wax. ayca ñu ngi man maa la woon tey suba mais dafa am lu ma bëgg a wax gis nga Sénégal yi bi ñu bu dee sëriñ si ñu yaakaar mooy loolu parce que xamul dax dama lay wax leen da da ci am ñoo xam ne waa ji seen dossier. Ah. léegi ñeneen ñi. dossier ñeneen ñi moom am na si koo xam ne moom dañ ko jàpp moom si jaayum organe ak ay centre de détention moom moom moom da daan lay. kooku nu mu tudd. di jaay ay organe moo tax moom lu xew moom buñ ko nee génn génnal doxal sax mu génn doxal parce que ñoom mu cay teg baal parce que moom jàpp na ni moom bu ci tegee baal gars yi si kaso bi lañ ko jëmee te moom eh. bu baax nag dama lay wax moom moo fàtt boo fàttali ko moom moo fi génnoon ni xanaa waa ji bu ko bëggee jàpp xanaa sëñ Moussa sëñ Mountakha dana ni pour ñu def ko si résidence surveillée eh. déggoo ma de. waxaat ko ma dégg waxaat ko ma dégg waxaat ko ma dégg. dama ni la. waaw ci am ñoo xam ne dañ leen jàpp ci du. di jaay organe. ah organe même. ak centre de centre yi yi ñu yoroon am na si ñoo xam ne seen bakkan fa la yem. dañ leen a dóor ba ñu torturer leen ba ñu dee indi seen organe jaay. léegi kooku nag moom heure heure bu Macky Sall waxee bañ te du bañ te moom moo fi doon wax ay wax yi te ñu mënta xaar intervention pour résidence surveillée. <laughs> dégg nga de. kooku nu mu dama ni la.

jël suñu destin téye ko en main dañuy sonal suñu bopp moom zéro ñoo yem xeex jot na bi xeex jotee jot na ñu ñu xeex jël suñu réew parce que lu ñu bàyyi ay salafaar yi kase ay doomu biire la ci ay producteur doomu biire la ci ay ministre doomu biire la ci ñu kat seen lay ñoo xam ne tekkuñ dara ñooñu bëgg toog suñu xeet yi mënut a nekk dañu bañ billahi walaay talaa ñun ñu ñu ñu bari ay doomu xalaat la ay doomu biire la ñu si seet bariwul ñu seen yaay ay càggala yi moom daal fréquenté ci ay baat ay xaw ma xaw ma fan baa daal xaw ma nangam sangam ay loolu sant kiriku xaw ma joom la xaw ma ñoom ñoom a ay doomi xaraam rek ko ñu jiite ay doomu yi ñu jiite doomu ñu tekkul sarap ndeyam ay sëriñ yoo xam ne tamit ñoom kenn xamul la la ji ay góor jigéen lañ ci ay maanaam ay ay affaire yu doy ñii ay viol ak yu kenn xamul am na si ñoo xam ne état Sénégal da leen ci ay dossier viol yoo xam ni maanaam tey jii procès maanaam dañ leen joxañ rek ñoom ñuy dem te bañuñu te duñu mës bañ te ñemewu ñoo bañ. Guigui. Hmm. Guigui. dama waru kat. le combat continue. dama waru le combat continue dañuy xeex xeex bi mu jeex ñu moom suñu bopp parce que tamit ragal yàpp yàlla la ragal yàpp yàlla la jot na ñun Sénégal ñu wane suñu bopp partout dans le monde xeex jël suñu réew téye ko defal ko. fii amul benn dëkk bu jot te xeexuñ c'est la lutte libère xaar bu yàgg bi nii heure bu ñuy xeexee ba si yàgg taxaw